mu ngi noonu mbokk yi mu ngi noonu mbokk yi mu ngi noonu mbokk yi masque dafa xew masque dafa xew ñàkk solo taxaw ci plateau bi dafa xew léegi nag mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bégg naa la yow mii di ma seetaan deuxième numéro nuit de la lutte fii ci télévision Futur Futur muy guddik làmb ñu leen di bégal ci làmb ak li ci biiram ñu leen di bégal ci làmb kese làmb dong làmb rek ndax su télévision Futur Média eh léppay ñëpp la te lu nay ku nee nga ca maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk fii ci biir réew mi di fi daan seen deew la lépp loo xam ne liggéey nañ ko yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa ful ba ñëpp di ci xaj ñu nekk ci réew mi amuñu liggéey nasaraan di ko wax chômeur ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla may liggéey boo xam ni nañ ci mën a tedd teral ci seen waajur teral ci képp koo xam ni wërsëgam xaj na ci ñi seen wërsëg nekkul fii ci biir réew mi Sénégal ñu màngaane dem ci bitim réew ñoom ñëpp yal na leen yàlla defal xéewal boo xam ni dañuy ñëw investir ko fii ci biir réew mi Sénégal ndax jàmbaar dawul dafa wuti doole ñi seen ñi caabi féete ginnaaw mbokk yi ñoom ñëpp yal na leen yàlla may liberté ndax liberté dara dàq ko le président de la république de tous les sénégalais le président Macky Sall mi ne Sénégal émergent yàlla na ko yàlla may kattan wu mu ko mottalee opposition bi ka saalika naka noonu kilifa diine yi kilifa aada yi xam nañu ñi ngi ñaan waaye ñaan du doy nañu gën a ñaan yàlla def ci réew mi jàmm jële fi mbas mii nga xam ni moom la ñuy wax coronavirus te lëmbe àdduna wërngal këpp ci nu mu gën a gaawee mbokk mi yow mii di ma seetaan tey nga xam ni saxa yaay moo mag nji mu bees mbokk yi yow mii di ma seetaan deuxième numéro nuit de la alaaji Cerno Njaay ne birale te birale mooy atte ay mbër ni may def mooy dama bëgg a dalal sama papa ba mu toog ba pare eh, kooku mooy kan mooy alaaji Cerno Njaay kooku mooy kan mooy ki saf sénégalais yi kooku mooy kan kooku mooy la grand lambalog kooku mooy kan kooku mooy taalibe cheikh ay dara bi wala Cheikh Sadbu xayartu lu mu la wax ci làmb dëgg la lu mu la wax ci diine dëgg la eh ñépp ko bëgg eh papa tarfadan ambassadeur Cheikh na Cheikh Saad Bou wa xayart eh solo gu ma dee maam jaara dikkati ndeyo ama lu ma ko tuddee dikkati ndeyo dikkati ndeyo eh, bu ñu pontu laal bu ñu daata laal man maître El Hadj Diouf dikkati na waaw mais maam jaara façon dikkati na waaw waaye bul bàyyi maître El Hadj Diouf waaw askay ah, nii mën dem man xoola man ak yow jarul distanciation sociale jarul bañ a nuyoo parce que yow xoola yow man maa la bëggal sama bopp age eh, Lamine ko bëgg bëgg na la age maa ngi lay bëggee maa la gën a bëggee âge deuxième numéro tey birale waaw te yow yaa ne birale mooy atte ay mbër waaw yow yaa ko wax waaw mais nuyoog sénégalais ma dem xoola ma dem def ni yow sañse ni yow ñëw took ñu xam ne saka yaay moom mag ji mu bees nuyul xanaa wax rek ni alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam nga ko waaye mbas mi tàbbi ci réew mi sunu boroom baaxee ñu ku baax ñu dénk ko ko. Hmm. mu jóge ci président de la république. Hmm. waaye réew mi àndandoo doon benn. Hmm. jàppale président de la république xool ndaw li mu jiital ci biir mbas mi. ministre de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr. de maire de la commune de Yoff. mun ko yëf yaa ngi dama ciy ànd ak yow askan wi ni ko duñ la bàyyi ginnaaw dañ ciy ànd ak yow. ñëpp participer. kon buñ santul yàlla lan la ñuy def. dañ koy sant. yal yàlla ruus booloo googu ñu booloo. amiin ak ànd gi ñu ànd ak ñu ñëpp bokke ba jële fi mbas mi génn ko def ko doom mu génn di wéy. xam nga lu ma ci àddina waaw. paa jantal. ne Lamine. paa jantal laa la tuddee. Ah, di taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu rek. tarfa dan di ambassadeur maa ngi bëggee. koo bëggee bëggee na la. kontaan ci yow. maa gën a bëgg. yàlla mais xoolal maa la bëggee man. ne yàlla dégg ci ñun te di ñu bégal. <laughs> bi jaayam xarala man maa bëgg a pàcceer man waaw damay toog ndax Abdou Naar mbenk waaw. seetaanu mbas mi. dëgg la. Youssou Ndour li mu ci def rëy na. askanu Sénégal li ñu ci def rëy na. après dañ koy débat lii ñu taxaw toog mbër yi li ñu ci def rëy na. dëgg la. yow sa départemental sa département ministériel jàpp ci. waa sa département communal jàpp ci. waaw ñi nga bokkal réew mi yëpp jàpp ci. waa communicateur yi bokk ñëpp bokk. waaw xam nga lu ma bëgg yal na yàlla lu sañu boppam waaye ba génne lépp ci eh, réew eh, xam nga nag léeg ñu ne man dam man damaa xam ni seuls les faibles sont naturels man xam naa loolu mais âge dama bëgg nga arrière ne le xool askan wi xool plateau jongante bi non man il faut ñu arrière ñu xool plateau bi. aayul. waaw mais eh xoolal ku man na nga def mais Alaaji Cerno xoolal li <laughs> quelle décoration waaye eh, nañu waxante dëgg waaye lii nag ku fi taxaw def lu liggéey bi ci war xoolal gaa yi dañ laa war ne xoolal xamuloo dara léegi nag alaaji Cerno am na ku ñuy waxtaane tey ndax dañoo tànn léegi nag comme làmb ju ubbeegul te ñi ngi taxawal ay combat dama bëgg ñu benn benn la xam nga lan mooy benn bennal dañuy def ay spécial dinañ def spécial Yaxya Diop Yékini ah, dinañ def spécial moom laa wax dinañ def spécial Modou Lo ah. dinañ def ay spécial ay spécial wane combat commencement ba fin waaye tey Apulaay yaag kan la ma solu jiite ñëw kon maa ngi lay xaar boo ñëwee wax ma kooku kana ah Mao ah, nu mu tudd Gaston Mbengue Cissé jërëjëf waaye li leer ba leer mooy eh, tey spécial kumu ndaanaan bu mag la ci làmb ñu dem waaw Bécaye mais Mbaye dinaa gis tam dañuy ay sol dañuy sol solu soldaar ci làmb ji waaw xam nga xam nga gars seen style la rek xale ñëw nekk li ñu sax américain ñene saa yi ay militaire uh-huh. yéen sekk ay ninja uh-huh. ñi ay karateka Tigre de Fass kon làmb moo yokk daal ak dina yokk bu baax a baax bi faj dëgg Bécaye xoolal bi ñu rek na ko tamit fàttewul mooy TFM fii mooy TFM kii mooy Thierno Ndiaye kii mooy Thierno Ndiaye noonu la ma dama dégg kii mooy Balla Gaye gëng gëng gëng fii mooy TFM kii mooy Thierno Ndiaye. <laughs> kii mooy Lamine Samba. mbokk yi kon gis ngeen ni spécial Balla gay la spécial doomu géejewaay bi la spécial l'ancien roi des arènes la spécial xale bi nga xam ni bëri na ak ay magam bëri na ak ay moromam bëri na ak ay mappandoom bëri na sax ak ñi nga xamante ne ni liñ ko magee ëpp na 10 an tey xale boobu la ñuy waxtaane ak alaaji Cerno Njaay tey xale boobu lañuy ñuy def spécial am jaar-jaaram ci làmb lan moo ko dugal ci làmb ak tey fi mu yegg ci làmb tey fan la ba kombaam ak Gris taxawaat tey spécial Balla Gaye la waaye newoon naa leen saa yu jinne bëggee Dakar ku yéeg daanu moo xar ma danga koy poxo poxo ndànk ndànk di wàcc ndànk di yéeg ndànk xoola ba mu neex doxal ay eh, maam jaara fase nee naa xoolal li ci des il faut nga ciy may gars yi nag maam jaara fase mais xoolal li yii Kisra yii nag ngañ demba ngañ demba borom géejawaay ku bëgg marakis yu baax ca sama rakk jooju nga jëm ngañ demba borom géejawaay mais ku bëgg tissu bu baax bëgg ñaw bu baax xam nga foo jëmma maam jaara fashion HLM Las Palmas 77 510 08 09 77 510 08 09 waaye xoolal lii waay waaw mais xar ma nañ wax nag nag kon Mariama ak Aji moo koy daggatee non maa leen wax loolu man alaaj non pas Thier sax daf ma fan Thier xool doucement rek ndànk méttiwul quoi piano piano non piano piano quoi doucement ndànk-ndànk alaaji Thierno gis nga fi maam jaara fashion génn tey mooy fi Serigne Medoune Sey taw féex di tam ma génn ak gaañ mm-hmm. gaaw ci xaru tabaski yi gaaw ci teraanga yi te du ko wax te it ma yëgal la ci ñaar sa doom Rama Macky noonu lay def. fa nga xam ni moom mooy Pikine Rama Rama Rama toj na Pikine. non Rama Lamine toj na Pikine Rama Macky dem ko lëre. dëgg la. lamin nit mënul gëni mbokkam. dëgg la. dëkk ba nga dëkk bu buñ la nawee. dëgg la. ci sa jëf la buñ la nawadee ci sa jëf. dëgg la. Rama xa suma doom la nag. dëgg la xale bu baax a baax. dëgg la ba ñeme péete dàkkantale boppam rama makki. waaw ñeme péete. te ragalu ci. déedéet. ragalu ci ragalu ci. ku wér moo ànd ak yow. dëgg la ragalu su mu gën a ànd ak yow. ragalu ci. seexluwul askan wa mu bokkal. di gërëmaale sa doom Doro Gueye chéri Clara. Doro géey men ku baax Doro géey mën a jàppale doomu aadama te yàlla tax. gis nga social fi ñu koy xamee. Alaaji Cerno du ñu taal caméra yi ngay wax de. wala ngay def caméra yi tàkk de moor xarma da ngay dem fekk fu dara ne woon nga def fa dara moment tabaski bi askan wi soxla nañ ko Babacar Ndiaye naa ni Jóob noonu la dëkkee bërki démb alaaji sa waajo moo du xulle dëgg la dëgg la bërki démb bi Jules Balde Junior génne àdduna gis ngeen li ci Doro Gueye def te waxewu ko defee ko gis ngeen ko li ci doomi Cheikh Kanté ji def te defewu ko waxee Kéba Kéba Kanté ak ñeneen ñoo xamante ni waaye Rama Maki seetaanu leen benn yoon mais léegi alaaji Cerno bu ñu nee Abdoulaye Ndong waaw alaaji Cerno bu ñu nee Balla Gaye soo may décortiquer tey Balla Gaye bi mu tàmbalee ci làmb ba tey lan nga may wax ci doomu Double Less mënuma jaaxal seetaan naa baayam seetaan naa maamam ah waaw mënuma jaaxal de kuy baayam seetaan naa Fodé suba mooy maamam. seetaan naa Fallaye. Uh-huh. Demba Ba. Uh-huh. Ocha. Uh-huh. Mete Ba. Samba Aji. la ilaha illallah. Duuba lees baayam. maam góor-góor ko tudde Duuba lees. waaye bi mu ñëwee dafa daje ak mbappatu laasana mu toj ko. mu doon mbappatu booy bambara. ñu ni bu ñu waxee rek ñu ni njool maaka maam góor gi ni ko déedéet Duuba lees. comme Bombardier mi gisoo Bombardier mi waaw Moussa magu Oumar Dia bu RTS moo ko tuddee Bombardier bala ngay di leen di wax ni dañ ma ngéntee xaalisu làmb waaw moo xar ma jégg dégg nga jooju wax juré waaw xaalisu làmb lañ ma ngénte dundale ma ko waaye bu jàngul woon bëre bi du doon du doon du doon mbër waaw laaj Thierno lu tax nga wax loolu. kon nit mën na doon lu mu dul doon. waaw waaw mër du la lu day màgg daan. amul c' est pas vrai Lamine. doomi mbër jàngil des na la ñam. waaw. boobu wóor. ñëw avec sa génération. imposer boppam. d' abord da nga ne ñëw avec sa génération. mooy bi mu ñëwee dafa bëri ak ay moromam. waaw. parce que relève générationnelle bu doy waar ñoo àndandoo dugg ci làmb ji. mu génn ci le meilleur. ñoom ñëpp waaye il est le meilleur. tu confirmes que Balla Gaye fait partie des meilleurs. du génération bi mu àndal di génn il est le meilleur. mooy le meilleur génération. ko wane ko ñun ko ci naan mu dajeek ay bagam wan leen ko. lu muy ah, bi muy ah. bëreeg yi ki nii amul ku ñeme bëreeg maa ngi ñëw. gannaaw bu mu bëree ak ay moromam ba noppi yow da nga tëb ni dafa bëri ak ay magam. waaw génération bi yëpp mu rajaxe leen teg. waaw bëri ak ay magam. waaw confirmel andil ñëwal Tyson magam la. Baboy magam la lan laa ko waxoon Tyson. Yaxya Jóob Yékini magam la. waaw. ak kan. doy na doy na doy na. mais mais booy sëy sax magam la. mais mu mu wax Yékini wax ju rëy. Mm-hmm. dama la Pàcceer de yow Pàcceer. Mm-hmm. maa aussi c'est jërëjëf. <laughs> yow yaa ne woon Tyson. Mm-hmm. ne ko vedette bu mag boo gis. bu ndaw boo gis. <laughs> foll bu mag moo ko tax a jóg. waaw. yaa ko waxoon Tyson dundam dundam yëpp. folli vedette bu mag ba mooy nekk ci xelam. yaa ko waxoon Cheikh Mohamed Ndao Tyson mooy objectif mooy ambition te bu bis bis bu ngeen bëree yaag moom. xef soo ko defee lu toll ni te rafetal ay ni dinga am mbetteel te dina lëng doo xam lu xew. yow yaa ko wax yow yaa ko wax waaw. keroog ba muy daje ak uh, uh, Balla Gaye. Balla wax ah. naa wax naa ko ko un an deux ans nii ki ni jour bu daanee nag Tyson bàyyil sa xel ni dootul nomination lamb moo lay soxla yaag moom. Mm-hmm. ndax champion bu mag. ak bu ndaw suñ bokkee jamono dañuy daje mm-hmm. te dangeen di daje làmb mm-hmm. leen di soxla bu boobaa mm-hmm. te bu leen làmb soxlaa amoo adversaire bu toll ni moom ci at amoo adversaire bu toll ni moom ci bëre amoo bu toll moom ci doole amoo adversaire bu toll ni moom ci tiitu la moom li mu am la gëm li mu xam lay def <laughs> waaw loo li mu am la gëm li mu xam lay def loolu loolu loolu dara mënu koo dindi loo ci mën dara il faut savoir comment faire pour le contretenir pour pour contenir Balla Gaye avant le combat le jour J et après le combat mais ñi ko réussir defe naa ni ci làmb bariwul Eumeu Sène moo ko réussir deux fois Issa mhm. Pouye réussir ko respecté ko su ñu bëree dix fois ci façon bi muy bëreeg moom plus dix plus quatre-vingts muy cent ci façon bi muy bëri ak Eumeu Sène su Eumeu Sène woon ni duma ma ak moom ñu bëri mu indi façon boobu Eumeu seen daanaat ko parce que respecté ko. ok kon danga jàpp ni. baa man lay ñëwee all right. te Eumeu da koy déglu da koy xool jaxran xañ ko boppam sax yu indee xeex ma xañ ko boppam xeex ak moom bala muy delloo loxoom. te ñaari coup ñaari coup laaw la koy dóor te da koy réussir toujours kon yow li ngay ñëw di ñi ngay ànd ñëpp def nañ seen xel ni yaa man mhm. mais mbër day daan ko ko man waaw waaw waaw yow mbër di daan ko ko man deux cent cinquante mille fois du dara parce que day xam fi muy teg boppam kon yow da nga gis ni respecté wuloo ko donc koo respecté wul adversaire boo respecté wul doo ko daan. kon yow da nga gis ni Balla li mu daanu ci Eumeu seen yëpp Balla respecté wul Eumeu Sène. fu mu ko respecté fan la ko respecté fan. mais dafa am kàddu bu muy wax moom. lu muy wax nee na Eumeu daan na ma ñaari yoon waaye manuma ma. <laughs> mais Alaaji Thierno est-ce que daan ñaari yoon manu la. Ah, <laughs> ki la daan ñaari yoon. waaw bu yëkkatee loxoom ni maa man. waaw kenn du ko mën a tuxal kenn du ko wetti. mais Lamine dañuy dellu ci ginnaaw. ñëw. xam nga Mbaye Guèye Robert loo tax mu doon metti déedéet Robert dafa xamoon ni Mbaye Guèye respecté wu ko yal na yàlla dolli seen wér ñoom mag ñoom amiin wa iyaak guddal seen fan dolli seen jàmm amiin wa iyaak bëri nañu ci ngor bëri ci jom bëri ci gloire takk ba tekki te ñaawuñu ci bi alal ji ñëwee daj ci seeni doom seen doom làmb ko ñii am ci doom yoo xam ne ñoo ngi ci jariñoo ñi am ci doom yoo xam ni réussir ñu ci ñi am ci doom yoo xam ni bëriw ñu sax faaf li ma jàpp ci sa wax mooy mbër du leloo day màgg daan bàyyi mën naa doon mbër maam doon mbër nga nga juddu bañ a doon mbër déet waaw waaw am ana naar Touré dëgg la ana naar Touré doomi tubaabu joor baay bi bëgg na lool lool mu doon ko waaye moom bëgg ko dëgg la <laughs> mais Alaaji Cerno mbokk yi tey spécial Balla Gaye numéro de la le lion de Guédiawaye léegi nag pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs yi ñuy seetaan ci birale ci soirée làmb Alaaji Cerno Njaay feggoo ak man ci jongante ni ñuy def mooy ànd ak yéen dem seetaan lenn ci combat Balla Gaye yi waaye nag dëgg dëgg dëgg dëgg laf cat ana bant dëgg dëgg nag doom doomi Alaaji Cerno Njaay ji jantal na nag mais loolu moom moo tax nag sama ñaari soxna yi sama ñaari ah, ah, ah, waaw wax nga dëgg de sama ñaari soxna yi nag lii tax ñuy xeex guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaw naan naan non bàyyi leen sama alaaji bi ma laal dégg kii nee na ma laaluma bant këyit laa laal man ma laal ma <laughs> ma ma maa nee na fi ma teg sama tànk ci bant la eh ñu xooli combat Balla Gaye yi bu ca noppee nag am na surprise bu rëy bu leen di xaar ci jongante Lamine waaw dinaa la wax ñaar ba ñett. ñu seetaan ko ba ñëw. nañu dem xooli Balla Gaye ñëw. nañ dem spécial Balla Gaye toj na nen bi nen boobu moom toj na ñoom ñaar ñu ngi léewtoo ah combat bi gaaw na combat bi gaaw na combat bi gaaw na combat bi gaaw na waaw bàcc seeraase bi noonu toog na loolu mooy jël bi nga xamante ni moom la Balla Gaye numéro 2 di doom ci Double Less daan ki nga xamante ni moom moo di bàcc seeraas sefer. arbitre ah, Alaaji Cerno Njaay lii Balla Gaye numéro 2 la woon ak Saloum Saloum baay bi nga gis noonu mu ñaan ba noppi gis nga Alaaji Cerno lan ngay wax combat bu metti Saloum Saloum li mu li mu li mu bëreeg Balla Gaye fii rëy na trop mais finition ko manqué. léegi li ma bëgg mooy ñu ànd ak koo xamante ni saan Sénégal yëpp namm nañ ko ah Alaaji Samba Mangane mu commentéral ñu combat Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne moom mooy Saloum Saloum. laaw waaye xale bi day jar naa moytu de moom Balla Gaye numéro 2. Saalum Saalum jël na attention ci attention ndax soo ko baax na xeex nañ xale bi gën waat na ko ña nga xeex ah Saalum Saalum jël na tànku Balla Gaye mu wàccaat ah Balla Gaye koy kot ma ngay kot pour weele ah seen combat métti na ñoom ñaar. victoire de Balla Gaye numéro 2 lay doroog réussir. nangam loolaa yàqoon suñu métier bi xanaa ma di ko ñaanal rek ma di ko ñaanal fan yu gudd ak bu yaram mais may ñaan waa Casamance yëpp nay ma dimbale ñu jàppale ma xale bi Casamance amul mbër kon nag léegi na fi ñu toll nii kon ñu ngi amaat benn bi ma ma doon talli suma loxo di ñaan waa Casamance yëpp xeebu ma ci kenn ñu ñaanal ma ñu jàppale ma ci xale bi. gàllaaj yi jox sa doom ndax mooy gàllaaj yi nga xam kooku yaakaar rek lañ ci am rek. am na loo ko jox ci fin bi mu dugal ko ci ngembam a muy bëree loolu dafa mel ni dañ ko ne lii si waaw kooku <laughs> li nga wax ko nga wax rek noonu la mën a demee rek nit ku nekk xam nga li nga doon boo ko bàyyee rek leneen fekk la ci biir. waaw combat bi nag dafa ko teg ci yoon rek euh, ndax euh, combat waaye waaye entraîné naa ko teg ko ci yoon teg ko euh, a combat bi entraîné naa ko physiquement entraîné ko sama moom alhamdulilah rek vraiment daf may ñaanal liggéeyu ndey añub na ma incha allah. non añub doom jamono ji ku seetaan lamb yaa ngi ko seetaanee RTS ku seetaan lamb sama Mbangaan moo ko reporté mu nekk ay archives yoo xamante ne nii doy na waar Alaaji Cerno Ndiaye Balla Gaye numéro 2 Saloum Saloum Balla Gaye numéro de Bathie Seras bëre ku ci ne ci bëre la la daan kii di bàcc seraas dem na eh, tib tib na ca gaño ya guuta ko ñuy dem bàcc seraas di jéggi mu rocc loxoom góolu loxo bi góolu tànk ba xar jëppeen ko dëj ko te ci suuf lañ nekk kii di saalum saalum dem na ba bëtt Balla Gaye dem ci ginnaaw gi temps bi muy taxawu di jël suuflam pour euh, bëre Balla Gaye bëre ci kawam indi ko daf ko indi daf ko delloosi ñëw na ba fi mu indi ko delloosi ko loolu moo lay wan ni doole du ñu benn saaluma mag agilité bi Balla Gaye àndal ak doole bi mu àndal bi muy bëreeg euh, saalum saalum di xale da koy poussé ci lu ne xolo xolo xolo te yaakaar naa ni bii am na ñaari chute parce que am na fu bopp saalum saalum njëkk njëkkale mais dafa am lu ma seetlu nga xam ni làmb làmb moo la mën a jële zéro la cent <laughs> xoolal leen ma moolu kanamu Balla bi rek benn maa après nga gisal ba pare nga xool jamono ji Balla Gaye xajatul estatam Iba gis nga xam ne làmba garaw Lamine Lamine làmba garaw Lamine soo xoolee chute bu njëkk bi waaw jël la am na waaw waaye dañu àndandoo tàqlikoowuñu saalum samp boppam mbàlla samp bopp saalum njëkk samp samp la ñëw samp ah. waaye ar bi vigilance bi ñu àndal moo tax mu waat moom waral gis na waaw mu indiwaat leen parce que njaax day am tëmboo day am mu indiwaat leen xam ne xale yi mën nañu bëri jël feeñ mu indi leen ñu bëri eh, lenn nag balaa ñuy ñëw ci après Balla Gaye ni mu paree ni mu franchir les étapes parce que dafa jógee fii dem fële euh, sa doom Eva Tra sama jigéen suma xarit eh. làmb ji nga xamante ne moom lañ ko tuddee woon fële ca Saint-Louis euh, te booy Gendar tuddee woon ko man attaqué naa ci Mao Cissé dimanche bu génnewul euh, image yi dinaa <laughs> wooyi Gaston Mbengue mu détrôné Mao Cissé ci cadre promoteur loolu moom man maa la ko wax loolu moom image yu yi moom bu ñëwul maaw jàppal ne dootoo nekkati promoteur ci mim réew léegi kon gis nañu Balla fi mu démarré da nga koy tuxal du doon réalisateur dootul dee doonati réalisateur ok léegi Balla am na fu mu jógee am na fu mu delluwaat fan la Maawo Cissé Apulaay Coly jëlaat na ko Balla lal na ko dóor na ci suuf Balla lal na ko tekki na téere bi woon ci wetam Coly ngi sëgg baa du Coly dafa bëgg xalaat mbot moomu mbotoon Baye Mandione ma nga sëgg ci suuf jàpp na ci téere bi waaye téere bi dafa mel ni élastique Coly Faye Tony Balla Gaye kon na war na toog Balla Gaye daan na Coly na ah, Coly bëre ba Birahim bëre feeñ na bëre feeñ na parce que booy bi yu jàppee day créé yi nga nga sànq maa ngi lay wax butéel yi bari na békay waaw butéel yi bari na waaye ah. bëre da mën a bëre te ñu am nañu action rek mi ngi noonu Balla fàttali na ma tàkkusaanu Robert Gaak Double Less fàttali na ma tàkkusaanu Robert Gaak Papa Kan fàttali na ma Papa Kan Gaak Double Less Moussa Diame Double fàttali na ma ay combat yu bare bare bare Ousmane Diop jël Balla Gaye doon na dóor ah. bare nga noonu bëree dina feeñ ci biir ko ko padd gis nga tuuti bu yi waaye peese woon loxo càmm yi moom Balla ko peese woon kon dafay aay ci àgg bu yàgg mais peese ko mu dee bëri rek day ñëw rek moom parfois mu am moment yoo xam ne moment de folie waaw perdre ci combat waaye nag yàqu dara ci bëreem waaye ni mu siggee jong nii baaxul nag wax dëgg uh-huh. il est il ah, ah, xale la xale am na ngemb ci loxo ndijoor bi. Balla Gaye a ngi noonu ma ngay dugal loxoom. gis nga loo doole xale. waaye dafa ko ndengeñ bëgg na ko jëndi. ba léegi Ousmane Diop jàppagul. jàppagul fenn de. Ah, mooy mooy baa ngi nii xale. laa ilaaha illallah xale mooy bëre. xale mooy bëre. dégg nga. yaay commande. bi mu ko bottee. waaye xale bi jéggi xale du Less bi jéggi sukk suufu ko remplacé ko jekkatul bëre bi jeex jekkatul bekk bëre bi jeex jekkatul daf ko wiite daf ko jóg remplacé jël ko gis nga topp ko rek bëre bi jeex bëre nii la da nga topp action waaye bëre sa topp action rek mën daan nii la ba xale bay bëri mayu ko dara il faut moom ku am Pastef la kii ku ku jàngul du tari déedéet dafa jàng moo tax mu tari bu jànguloon du tari déedéet il a appris avec son maître waaw ñun dañuy jàng bëri tout temps parce que ñun bëre moom la ñu am parce que dama doon bëre ba pare euh, si tamit di bëre di jàng bëre di bëre. bañ sant yàlla tamit julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, di sant sama ñaari waajur di sant sama encadrement euh, di sant tamit sama per Balla ak sama père gason franchement ku ma jàppale si combat bi tamit. est-ce que yaa ngi xalaat après tournoi bi. après bi. man mbër moom tax a jóg après tournoi bi lii mooy sama àdduna. kon dama ci teg sama bakkan maa ngi sant yàlla nag. Ndeyjoor Baye Diouf càmmoñ ñoom ñaar ñoo bokk position. Baye Diouf mooy Ndeyjoor Balla Gaye càmmoñ. Balla Balla ngi dóor Baye ba ah daan na ko jënd bi yomb na. yomb na yomb ko moo dool ko ko doole fii. yomb na lool. ko doole fii dafa ëpp doole bokkuñu yi duñu benn. dafa am dafa benn jàngat bu ma jàngat combat Balla Gaye ak usmaan Diop. Ousmane Diop bëre nañu te tey ce sont des meilleurs amis ñoom ñaar. waaw ah. mbër mbër mbër mbër mbër tudde ko doom. mbër bëri mbër. ñu jóge fa yu yu si ñan ak moo jenn bu caaro yi rahmatullah alayhi maamu rëg rëg bëri nañu dóorante ba naaj def lépp. làmba ja jeex ci ëllëg sa Youssou jën dafa jënd complet bu la jun jacket ak pantalon jean ak bottine ak cap ñaar jënd médicament yi muy fajoo pharmacie jëndal moo jenn dem fekk ko caaroy te tey ay lébu lañ ñoom ñaar Lamine sport day boole du xàjjatle du xàjjatle ce ne sont pas des ennemis c'est des adversaires d'un moment tout simplement du laneen laneen laneen seetaan nañu Balla bi muy ñëw ci moment yi uh-huh. mais toj na mbappat yi yaram fendi na ci bëre mm-hmm. ku ko ci déglu bu bëre bu et puis day enchaînement lay bëre ok am na koo xamante ne ba mu jeex dañ koy dañ koy félicité ci làmb félicité ko ci carrière mbër yu bëri mais félicité ko surtout ci carrière Balla Gaye mooy Gaston parce que mm-hmm. combat Balla yu bëri moo ko tëgg moo ko dugal moo ko moo ko moo ko tëgg bien avant classe petit combat tëgg ko combat de de classement. Mm. yóbbu ko kalaaf. kalaaf mm. jeex mu continuer ak moom enchaîner ak moom mu ba euh, combat capital yu mu bëri yu ci ëpp moom. mais est-ce que du petit promoteur bu ndaw ambition am yëpp mooy jëlee fi euh, promoteur bu mag kon Gaston Mbengue Cissé mii tey xalaatam mooy mu jëlee fi promoteur yu mag yëpp. waaye na fi bàyyi nag sama doom jamaïcain sama doom jamaïcain moom ku ko attaqué ma attaqué la waaw loolu moom am na taxawal nag combat bu rëy nag maa ngi ciy ñëw léegi. Gaston Gaston day làmb. mais xoolal Balla. day Gaston day làmb. xaalis bàjj bi. déggoo ma de déggoo ma day làmb. kon xoolal fi làmb tollu. kon Gaston Mbengue Cissé mi nekk fii ci télé bi lu muy def moom. làmb lay def bi mu tuddee Gaston. ah mais ñoom ñaar ñëpp dañuy làmb. bu tuddee bi mu tuddee Gaston rek mën am mille chance su dem Gaston dafa fekk làmb ni tekk da zéro mu yóbbu ko mille mu ànd ak Maguette Diouf ñëw waaw pour làmb njaamur Maguette Diouf dem mu resté kooku ku amul fit amoo ndeysaan ambition ndeysaan am na am na lu doy waar lu am lii ngeen gisee image yi yëpp nii 2S la ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen féliciter parce que ñoom aussi tamit bi RTS nekkee te yor monopole làmb ji ñoom dañoo ñëw yokk euh, waa 2S waaye wàññiwuñu te dooy xool lu doy waar li Gaston nga doon def nii yëpp maa aussi c'est moo ànd ak moom ci réalisation bi. Mhm. c'est exceptionnel. tey maa aussi c'est moomu moo nekk promoteur di bousculer promoteur yi. non adduna moo gudd tànk adduna <laughs> moo adduna moo gudd tànk. yore rëg-rëg bi rek teg mu mu jox rëg-rëg nga daw nga daw neexul a de guy gi daw na ci lu ma wóor na ko confirmer mu woote dafa daw ci lu ma wóor ndax xaalis bi muy laaj Gaston Mbengue Cissé du ko ko fay waaw li muy laaj du ko ko fay mooy benn ñaareel bi mooy damay laaj lan la nit ñi di def lan la nit ñi di daw ci rëg-rëg comme rëg-rëg ayewul tey ki aye mooy Balla Gaye numéro 2 dañuy leeral ne combat rëg-rëg ak guy gi ñu doon wax tardeewul ci rëg-rëg Gaston Mbengue Cissé Mao Cissé Sénégal Entertainment Group xaw ma tardeewul foofu fi mu tardé mooy rëg-rëg dafa naqadee wutal adversaire Mao Cissé wutal na ko lu ëpp fukki adversaire kenn moo ci newoon bëgg naa muy guy gi mais lim laaj c'est trop cher pour maa aussi c'est fay ko Lamine c'est trop parce que xaruwul benn njëkkantewuñu ñaar <laughs> dawuñu ñett kursuñu expérience bi Futurs Médias am ci làmb dama bëgg ngeen déglu ma ku taxawal Balla Gaye ak Eumeu Sène jamono bi làmb di di di di di di tàng dëgg bëriloo Sa Thiès bëriloo bëriloo keneen ak keneen kooku kursu taxu koo jóg bu fekkee ni nit ñi dañoo soxla rëkk-rëkk nañu ko wax Mao Cissé mu dem jox ko ko mais nekkul pour course nekkul pour njëkkante ñi nekk ci suuf naan rëg-rëg dellool avance bi ñu jox la beneen avance bu leen neexee na rëg-rëg indi man li may wax je pèse bien moo waxuma ci tur su ma nekkoon beneen télé wala beneen promoteur di def nii sénégalais yi xam nañ ni man nii laay waxee maanaam li nekk ci biir mooy ñi nga xamante ni nii fexe nañu ba Reug Reug ah, jot avance ñu dox ci biir ci suuf naan ko dellool ma jox la diw dellool ma jox la diw dégg naa tey sax promoteur boo xamante ne nii mu ngi ne soxla naa Reug Reug te mu leer ko ni Reug Reug jot na avance pour man c'est pas joli. ci contrat pour man rafetul Reug Reug dafa nekk ci contrat soxla naa guy gi. mu leer la ni yow guy gi moomu mi ngi en pourparler ak sa moroomu promoteur nga taxaw ne soxla naa ko mais fi guy gi ak baar bi mooy pour man pour man personnellement lu ma ci góobe naa ko gar pour man ñemewul xale bi ndax li mu laaj ci ay koppar bon nañ ko ko fay ak làmb fi mu toll ak crise bis am ci àdduna wërngal këpp mooy tu ne veux pas lutter rëg-rëg nag na ma wax li mu takk rëg-rëg nag na ma wax lim naan rëg-rëg nag na ma wax lan moo tax mbër yi ñemewuñ ko man ñemewuñ ko laa ko mun a tuddee alaaji Cerno dama lay jox nga sànni ci tuuti baat ñu ñëwaat ci spécial Balla gay numéro de pour mbokk yi loolu moo tardel combat rëg-rëg ak nga xamante moom mooy guy gi li guy gi di laaj parewul maa aussi c'est parewul pour fay ko ko alaaji Cerno mais jarul sori Lamine lii la bëgg lii nga am ne leen li nga am moom lu ëpp loolu la bëgg beneen bi rëg-rëg du neex wutal adversaire waxoon naa ko dëgg la Lamine suñ ne tournoi ñu ne nee na ko coppet mhm. bu dee Ndakaaru mu ne ko mhm. coppet mhm. Adrien Senghor mun leen du ngeen fi féexi Iba Mar mun leen dama leen di wéttali si Demba Diop mu ne leen maa ñu rëcc dem Tëngéej ak bar ñi mun leen du ma leen fi bàyyi ndax maa ngi a bokk fii lébu laa ñu rëppata làqute ji Cees mun leen fa laa gën a aaye ñu song joof mun leen du fi ñu ni Simla mu ni du fii ñu ni Joal mu ni fii la dàqe ndax maa ngi a bokk maam waaw ñu gis la nga daan ñëpp toj làmbi mbapat yi dem équipe nationale jaxase ko mais Lamine kuñ la doo neex wutal adversaire dama la koy wax léegi kaneen ku mu mën a dooñ buñ ko la junjee nga ni ñun la yee say mbokk la naan dafa mën a bëree. man am na ay argument yoo xam ne su mën a bëree. Pulo am na ay argument yoo xam ne dégg naa ñi nga xam ne ñoom ñooy dirigeant yi ñenn ci dirigeant yi avancé ko ci rëg-rëg pour man seen combat lu tax du yomb mooy ils ont perdu d'avance. parce que bu fekkee ni yow ñu ngi lay proposer mbër ne la Reug Reug mu ngi fi ngay sóor gàllaaj yi ngay sóor moyen yi moo tax moo tax maa fan Modou Lo man maa fan Eumeu man maa fan Bombardier man maa fan Balla Gaye numéro 2 ba ci bàyyi ma ñoon dama ko fan xam lu tax day wax sama sama sama dépense u kër kenn duma ko yoral parce que lamb mooy sama sama sama sama métier su ma ko deful du ma exercer waaye man nanguwuma presque bi yëpp taxaw nga ne ñeme naa diw ñeme naa diw nañ ma ko jox ci suuf ngay laaj xaalis boo xam ne leer na la ni kenn du la ko fay. Ah, loolu mooy. pour dire poliment bugguma bëri ak moom. bëri ak pour man loolu la mais comme loolu taxaw na information ba tey kii di euh, Boy Niang numéro de ak Tapha taxaw na ñi ko taxawal mooy Leewtoo production. tey lañ doon def li nga xamante moom mooy signature mais am na beneen combat boo xamante ne nii wutal nañ ko adversaire mooy Double Tyson roi bu Kaolack. waaw. baay ma ñëw na ngi taxaw Jamaïcain moo tëgg loolu. waaw Baye ma ñëw na ngi taxaw. Xoyantaan roi des arènes bu Gambie mi ngi taxaw muy ay événement yoo xamante ne nii moom mardi dina ko signé moom Jamaïcain am na Double Tyson am na ak moom accord de principe. ndax ñëpp xam nañ ni double Tyson mooy roi fi nga xamante ne nii moom mooy Kaolack. fu ñu ko ma bëree. léegi nag bàyyi ma ñoon. fu ñu ko ma bëree mais boo ko bëree Kaolack du neex bàyyi ma ñoon boo ko booleeg double Tyson. foo koy bëree Kaolack du neex Kaolack. foo koy bëree du neex du neex Kaolack. lu lu tax. day neex. day day takk mais boo boo leen boolee boo boolee double Tyson roi roi roi Kaolack ak xoyantaan roi des arènes bi nga xamante ne nii moom mooy moom mooy Gambie du neex. day neex. Eh, sama doom ji baatere na de. waaye waaye lu ci man lu mun ci mën a amee. sama doom ji baatere na de bëree. waaw xamoo ne Kawlax dëkku mbër la. sama doom ji baatare na de. dëkku mbër la. léegi li ñuy def mooy. Balla am na fu bala ngay dem. ñëwal dëkku la. ñëwal. Manga Diouf fa la feeñee. ak kan. Buri Patar fa la feeñee. sunu mag fa fala feeñee. Korias Mbay fa la feeñee. Mhm. rahmatullah alayhi Aliou Ndiaye. fala foofu ca Kaolack waaye booy banqaas Souleymane bi dëkkoon fii Kër Massar fala feeñe ñaneen ak ñeneen géej jóob fala feeñe mbay ja fala ko fekk déggoo ma de dégg naa la booy ñàgg fala feeñe fële leen talax la xaye ñëw ñoom ma may la benn ñëwal dafa am ñaar yu ma la bëgg may alaaji Cerno dama la bëgg may benn combat bu doy waar mooy revanche la ak défaite défaite bi Balla Gaye numéro 2 am ci Issa ak revanche bi mu jël ci Issa Pouye moom laa lay may et spécial ñu dem Mao Cissé du jël ba tey du ah Issa Pouye daan na Balla Issa daan na Balla Issa Pouye Balla jël na Issa Pouye jël na Issa ñu ngi ci saako yi Balla ngi dóor ci suuf Issa Pouye ngi jàpp ci ngemb Balla Gaye Issa Pouye Balla Issa Pouye ngi fàqat Balla bañ na Balla bot na ko génn nañu ci biti duggaat nañu ci biir Balla jàpp na ko wër na ko ndombo Balla wër na ko ndombo Balla daan na ko Balla daan na ko Balla Gaye daan na Issa mais dëgg dëgg dëgg dëgg alaaji Thierno Ndiaye pulo jamay kee sama doom ku soxorul boo ne spécial Balla Gaye da ngay wax spécial Gaston Mbengue parce que mënoo retracer kenn du moom mënoo retracer carrière u euh, numéro de te lëkkalewoo ko ak Gaston Mbengue nañ waxante dëgg alaaji Thierno ah, loolu kenn mënu ko kenn mënu ko dontin ay xoole joxu la tur lamin ay wax du la ko jox dangay jëf ba gaa gaay xam ni lii nga jëf moom la ñu nangul la ko suñ la ko nangulee nag bu boobaa loo wax yawa mais wane na ko wane na ko nekk na fekk ay nawle promoteur am toog ñu ñëw fekk si ko ànd ak moom di liggéey ci làmb ji combat bu mag bu ñu wax ñu ne mooma ñu dem ba làmb di dingoor toll fii mu toll mun leen suñ sport national la ñoo ko moom bu ñu ko sàgganee maay seen mag damay ñëw jàpp ci na ma ci daan jàppee wéetoon tey wéetaliku naa ngir yéen et je vous bu kenn sàqi bu kenn dem ñëw dekkalaat làmb indi li mu indi indi Gris Bordeaux indi Balla Gaye ñu war a bëri indi Bombardier indi Eumeu Sène mais lamb nii la daan doxe Lamine dafa ndànk revanche su 15 ans musul am mbër da daan bëree daan un mois mu revanche ak morom wala mu bëri ko daan ñu jëlu ñaari revanche ñu ne ndakaaru lañ bëri woon wala ñoom Kaolack lañu bëre woon nañ leen indi ndakaaru Robert Ousmane Ngom kaneen ak kaneen yooyu moo amoon waaye daan naa la rek dootuma bëreek yow wala daan naa la bala ma may revanche <laughs> yow yow dugg nga loolu léegi rek la amul woon amul woon bu Gaston delloo seen ak loolu indi na làmbi démb kañ la ñu bëree ñoom kañ la ñu bëree yàggul am na ñu leen jiitu ci bëri te ñëw ñu ba léegi revanche ñu mu delloo si leen revanche loo leen ba pare nag ne làmb jaa ngi kaay la ñu bokk jàpp ñun ñëpp. xam nga bu ñu nee mbër Mor ma il faut que ñu ne promoteur bu ñu nee mbër il faut ñu ne amateur bu ñu nee mbër il faut ñu ne CNG. mais manager. manager mais première kii gunge mbër mi ba tax ñu ñu koy tudd mooy promoteur. dama am benn waay bu ma envoyé SMS léegi ndaanaan la ci wàllu làmb ne ma booy spécial Balla Gaye boolewaale nga ci Gaston sans ci compte. soo doon spécial Gaston tamit di ci boole Balla Gaye ci compte. ñoom ñaar seen carrière nii la def mu nekk loo xamante ne nii mbay nga xaali ñu la ciy félicité ñu ngi la ciy encouragé dellu siwaat bi nga dolli siwaat ci làmb làmb moo yokk waaye làmb wàññeekuwul te loolu c'est important lamb moo yokk waaye làmb wàññeekuwul ndax boo dellu siwaatee tëgg ball gay 2 ak Gris tëgg Eumeu Sène ak Bombardier yokkaat nga làmb làmb na tey bu ñu taxawee ñu ne yokku na Boy Niang 2 ak euh, Tapha Tine taxaw na làmb yokku na bu ñu nee Modou ak Ama Baldé taxaw na làmb yokku na ni taxaw na bu ñu nee Siteu ak Papa Sow taxaw na làmb yokku na promoteur yaa ngi ñafe di taxawal ay combat li may wax ni du damaa ràcc jëmale sama kanam ñu gën sama doom ji combat bi mu taxawal ca Gàmbi combat du ko tax xoyantaan la ak Fran euh, France ak Leket mooy tolluwaalu Balla gay rek ak Modou Lo xam nga lan la ma taf sama benn sëdd wax déedéet taalafaal taalafaal ah. daf ma ni maam man ko amoon ah, ma Balla Gaye mbër piir la man ko nu mu nekk mbër piir mun ma bëree naa ak ñëpp ak discipline bu mag te sama kër ñii Modou Lo la ñii Balla Gaye la ñii Eumeu seen la ñii Ama la ñii ñele Ousseynou Ndiaye Ama la loo ci mën ba pare mbër ñaar ñii ñoo ko seq mais nag mi la fekk ci entrainement te kenn engagé wu la mu jël la engagé la ngan ko yaama doy mun la mun la nañu ànd ñun ñaar doy loo yàlla sunu borom jël la engagé la ci quinze mille nga nekk ci yi ña la doon gunge ànd ak yow nangu xiif nangu mar nangu rafle di entraîné nag yow di la dar ci lu ne boo amee waroo leen mën a fàtte promoteur bi la tëgg jël la ci quinze mille yóbbu la ba bëri loola ay million kooku loo mën a fàtte mën a fàtte waroo koo fàtte te ana sa gaayu moo gën ana sa tey déggoo ma dee Lamine ana sa gaayu démb yi moo gën ana sa gaayu tey yi sa gaayu démb yi buñ taxawee yu tey yi taxaw yu démb yi ëmb nañ ñu tey yi mbooloo mi day gën a suude waaye ku ñu gisalul sa nitu démb lu dul ñu gisal la ay nit tey duñ la ñeme. dëgg la Lamine kuñ fi ragal yaa ragal loo sa bopp dëgg la waaw yaa ragloo sa bopp ah nag naa la xamal leen de waaw Balla Gaye mënuñu ko wax bàyyi Gaston ginnaaw de. déedéet mënta ne. <laughs> déedéet ba pare nag loo wax mu ne sama doom la. wulli mii dimanche bu bas bu Gaston tëggee làmb bu wulli bëri ci soo waxee mu ne sama doom la. Mm-hmm. dimbali googu mu doon dimbali wulli ci la nit ñi ràññee wulli. dëgg la wërsëgu wulli yokku na ci. waaye wulli delloo na ko njukkal parce que am doom bu góor ñëpp di séentu nga am kër ndey am kër baay am ay dëkkandoo ak lépp ñu ne la mu ne sam papa ji tax àddina xam ma moom laa koy tuddee. ndeysaan. tuddee ko Gaston. loolu ak ngor la. sàmm na ngaar mi sàmm. mais alaaji boo gisee xolal fi fi fi Balla tàmbalee ba fi ñu yemagum. il a yaa ngi dégg léegi Samba Mangane di wax ni di combats di victoires foofu la jógee rek Mangane yi dem stadium Demba Diop stade Demba Diop dama xëy toog ci duggu làmb ji ñëpp toog man leen làmb ji ñibbi na ñibbi na jee jowee kër duuba lees ñëpp mer ñu ci mer ñu bari mer ñu bari te man Lamine làmb rek laay wax wax ma laneen ci cadre làmb laa ko teg ak ñoom ni leen ñibbi na kër duuba lees ñu mer ma ne leen naqaru làmb wu mu amoon doom yi dinañ ko fay rawante na doomam ji xale bi ñëw pour ver rakk ji ñëw raam topp ci wetam làmb nag bëre la waaye daan ak daanu dafay ànd ak match nul amul làmb jooy wax ni wane ne ci ñàkk jom buy daanu mi ngeeg jom buy daan mi ngeeg jom kon booy booy tibb champion mënoo koo jëllu moom Balla mënoo ko jëllu booy tibb champion mënoo ko jëllu mais su ma la dee laaj tey même ñi ko daan boole leen waxee kan la ma seen dama laaj ko rek na ko dama bëgg nga wax ma ay champion ci làmb ji du jëllu Balla Gaye mais dama la bëgg a benn question uh-huh. fi ko Issa Pouye daanee ak fi mu laajaatee revanche. fi ñu revanche ji nga ne mu dafa teel trop. Gaston la pour laver l'affront. mais Gaston la Gaston la dafa mën làmb xam na ni tension jóg na ci bu ñu bëree àddina bu leen nomee àddina dina ñëw ñii dina ni saapuy da koy daanaat ñi ni déedéet. mais si diggante bi dafa dugg ci claf. waaw ñoom ñaar ñu génn ci claf ñu boole leen. jërëjëf Mao Cissé mu jël ko jërëjëf Gaston Gaston Mbengue Cissé. daal di leen boole. revanche bu gaaw loolu moo lay wan ni daf mën làmb revanche boobu xoola ni mu mel. Alaaji Thierno mën làmb ak xam làmb ban mooy différence bi. mën nga xam làmb te doo ko mën mën nga xam làmb te doo ko mën xam ak man du benn <laughs> Lamine mën nga xam kii mën ko di di la teg ci yoon parce que ndoxtu la. làmb ndoxtu yoon la. ndax soo mën a yoree deux cent cinquante milliards ñëw lépp lépp nasaxaay te du xam lu ko lu ko nasaxaay loo parce que xamul yoon wi dafa mën xam yoon wi nañ ko nangul takkaluma lu ma koy jóolooli wayuma ko lii ma wax yéen ma ko gën a xam yéen ñii seetaan ak ñeneen ñeg ñeneen di gis làmb xam ngeen ni mën na làmb te xam na làmb man ñii may waxal tamit Pulo takkaluma lu ma leen jóolooli ñoom ñoo ko def ñu wax xam nga ñun ñii di toog di jaay xar ñoo xam ñiy gàmm ak ñiy raas déem non non non parce que ki takku di liggéey du dóor ki takku di liggéey bëggul facilité te man bii rek laa xam xàmmee naa ñiy gàmm ak ñii ras déem day am ay kilifa yoo xam ne dañuy ñëw jox la xaalis ne la defal te yàlla tax jox la list ne la joxal diw joxal diw waaye bul tudd sama tur. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne ni bu caméra yi tàkkul duñ joxe. am na yoo xam ne boo takkul rajo yi duñ joxe ñooñu dama ciy boole medun say borom tawféex lim jënd ci man ci xar jox ko néew ju doole yi kenn xamul nu mu toll. dama ciy boole Serigne Ablaye Diop borom xaas. Lamine képp ku ko démb la ñëw xam nga ban heure la ma woo sama soxna mun na ma témoigner il m'a appelé à une heure du ñëw jënd ay xar bàyyi ko fa ne ma joxal ma ko diw ak diw ak diw ak diw waaye dama ciy boole nag sama waayu bopp ji. Mame Boye Diao le directeur des domaines bi mu koy def nekkul directeur des domaines non non non loin de là maa ngi moom du tey da koy def te ñii may wax nii du ñu ko weddi Umaro bu Cheikh Béthio du ko weddi ma euh, Doudou Ndiaye Mbengue du ko weddi Lac de Guiers numéro 2 du ko weddi ak ñeneen ak ñoo nag kiy jàpp ci li nga doon loolu du dóor parce que xar tey fi mu toll ci Sénégal ñi ko soxla ñi koy jaay ñooy vedette yi du client yi ñooy vedette yi nay leer moom laay wax ni pàcceer li mu wax léegi ne xalamaluma Gaston. dóoraluma ko. loolu ah. laay wax ñiy jàpp man ci askan wi te yàlla rek a tax ñooñu jaaraama war na leen moor Xarma. loolu waaw dafa am lu may gis ci. mu dun ah. say mu dun taw. ndeysaan waa waaye ñi ngi woote. Ah. nee nañu kontaan nañu. ñoom Tafa Naar. nee nañu nee nañu kontaan nañu. sama fils waa pikin nee nañu kontaan nañu. Ah, waa Sénégal nee nañu kontaan nañu. Mm. ci spécial bala Gaye bii waaye balaa ñu fi jóge léegi. incha allahu rabbi dimanche dinañ leen wax spécial kan la. Lamine. ndaanaan muy ñëwaat Mor Xarma. tey ngeen xam tey ngeen xam ni saxa yaay moo mag nji mu bees. Lamine. Eh, ah Rimka Couture Touba Sandaka ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm bu baax a baax. Eh. maa fu ngeen toll. Eh. waa léegi Maowa. Serigne Jong sa Sabas. men. waaw bu rue 22. waaw. kenn gënu ko. dafa am promoteur bu bees bu dugg bu dugg ci si làmb ji dugg làmb ji. waaw dama koy tag dama koy teg léegi mais dama bëgg ñu àndaat xool Balla Gaye numéro de ni muy pallier les étapes di dem ñu dem. waaw Balla Gaye moo féete sunu càmmoñ arbitre yaa ngi taxaw seen diggante Bécaye xoolal xoolal Modou Lo ni mu jaayoo Bécaye Bécaye xoolal arbitre bi diggante ñaari mbër yi li mu leen di wax Modou Lo seen ndijoor mi ngi ñëpp benn ngeen ci loxoom Bécaye mbokk yi juróom ñaari waxtu weesu na lu toll Balla Gaye moo féete seen càmmoñ ku ne jàpp na ñoom ñaar ñu ngi léewtoo déet. jegantewul. jegantewul seeni loxo laalantewul. du tout Bécaye waaw Bécaye xam nga lu ma jaaxal. waaw mooy a ne tari nga doog a ñëw. te ku ci nekk sa tànk càmmoñ nga jiital te jar na loo wax ci loolu. dañuy dox daje. ndax oh, jéggi dox léegi cong. Balla Gaye met na. waaye demul waaw mais demul. Balla Gaye doon dóor nañu. Balla Gaye oh, doon dóor nañu. Balla Gaye doon ñëw. daje nañu moom noo ngi a oh. Balla Gaye fab na ko mën naa bañ a. war na ko dóor ko. bañ na ko bañ na ko. Modou Lo Balla Gaye daaneel na Modou Lo Balla Gaye daaneel na Modou Lo da Balla Gaye daaneel na Modou Lo c'est le champion c'est le champion waaw c'est le champion Bécaye Mbaye day Balla Gaye daaneel na Modou Lo Modou Lo ngi toog Modou Lo ngi toog ci suuf waaw Modou Lo ngi toog ci suuf ah ndeysaan. Modou Lo ngi noonu. xale a bëri waay. waaw waaw addunaa ngi noonu. addunaa ngi noonu. fukki combat ak ñeent. mi ngi doog a dégg. Ah, yaa ngi doog am bis. waaw bis bu rëy la. waaye da ngay comprendre. waaw ak ña nga dëkkal. ngeen xam ne làmb moo mel nii da ngay bëre tey daan bu subaa daan la noonu mooy adduna. Eumeu Sène Balla Gaye Eumeu Sène Balla Gaye Eumeu Sène daan na Balla donc consultant wax na arbitre baa ngi waaj a sifflé arbitre bi sifflé na tey samedi 3 mai 2009 stade Demba Diop Moustapha Gueye le tigre de Fass Balla Gaye 2 de Guédiawaye Moustapha mi ngi ci kaw Balla mi ngi jiital tànku ndeyjoor Balla mi ngi jiital tànku càmmoñ Balla Moustapha ñi ngi lewtoo Moustapha dafa bëgg ndax wér yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wér yaramu njaboot te seen wér yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor l'écran mooy euh, bi gën a wóor waaye euh, euh, alaaji Cerno dama jot benn message boo xam ne dafa ma neex trop ah. mu ngi bàyyeekoo ci Omar Baas bu Géejawaay ah, Omar Baas bu Géejawaay waaw mais dafa la gërëm sant la ah. di nuyu Pape Mama <laughs> borom Géejawaay di wax ni que jamono ji ñu wax a yéen nee na Géejawaay yëngu na mm. ñu ngi ci télé yi dafa mel ni tey dimanche la Balla Gaye moo doon bëre loolu la ma wax nii nee na dafa mel ni tey dimanche la Balla Gaye moo doon bëre waaye xam nga li neex mooy booy làqu na nga làqu ci jàmbaar booy ñaan na nga ñaan kuy maye sama maam ne xarum juróom-ñaari bët ak juróom-ñaari béjjën bu mbëkkulit raglu na nii laa koy jàppoo ak yéen juróom benni adversaire wala boog juróom benni mbër yoo xamante ni toj nañu réew mi waaye dimanche kan lay doon Gris Bordeaux lay doon xaw ma ci dara Modou Lo lay doon xaw ma ci dara Eumeu Sène lay doon xaw ma ci dara. xanaa maawoo ñuy wax kan lay doon. dina leer alaaji Cerno waaye dama bëgg ñu rënkal ma tuuti Balla gay mii nga xamante ni digganteem ak baabooy tey soow la ak suukar. nañ ñu tuur dañ ko xooyal naan. ñu dem ci Balla Gaye ak baabooy. ñetti song tegtal boobu nag yaa ngi koy gis nii alaaji Cerno attention Baboy ngay dox Baboy Balla Gaye Baboy Balla Gaye Baboy Balla Gaye Balla Gaye nga arrière Baboy bi attention dañ jàppante attention ah, fenn la ko jàppante na ah, war na ko nomba Baboy rëpp na Baboy Balla Gaye ah Baboy ko war na ko nomba daan ko da ko ko fel war ko nomba daan ko lamba ja na devant Balla Gaye mi nga xam ne Baboye ko daanoon. yëkkati na loxo càmmoñ bi Yékini Yékini ngi taxaw di ko xool Yékini ngi taxaw di ko xool Balla ngi jéem a en arrière pour Yékini topp ko Yékini wàññi na léewtoo ba Yékini ak Balla Gaye Yékini ak Balla ndeysaan stade bi nee na selew waxoon naa leen ni békaay xale bi bu ñëwee du battre bëri bi il faut mu seet lu muy def waaw tamit loolu dafa yomb ñoom ñaar ñi ngi ni selew ba mu xool géwél yi rek ngay dégg 19 heures une minute et quelques secondes mu nekk ñu ngi bëri xel daje nanu daje nanu daje nanu daje nanu lamb ja jeex na lamb ja leemu jeex ñoom ñaar lii la ñu bëggoon Balla Gaye jàpp na Yékini jàpp Yékini Balla Gaye Balla Gaye ak Yékini Balla Gaye ak Yékini Yékini neexul a daan ci loolu Yékini jàpp na ci ngem eh, li nit ñi bëggoon la ñu Balla Gaye jàpp mhm. naa jàpp jàpp na Yékini jàpp mhm. lan moo nar a am mhm. Balla Gaye dafa teg bi ci waa ndengeñ bi ndengeñ bëgg na liggéey Balla ma koy xañ ma Balla Yékini ba tey Balla ko ndengeñ Yékini dugal na bopp bi Balla koy génne Balla jàpp na Yékini ci ngemb bi ba tey Yékini benn loxoom jàppul fenn. booloo ci loxo bi day xeex. Yékini benn loxoom jàppul fenn. Yékini benn loxoom jàppul fenn. Balla jël na ko Balla Gaye Yékini suuf na ku yegg Yékini def na quatre appuis wala def def na quatre appuis wala deful quatre appuis. attention leen nanu bëre. Yékini doon na dooraat Balla doon ci Yékini deful kat appui. ah dinañ ko delloo. dinañ ko delloo waat Yékini koy takk Yékini koy takk Yékini koy takk Yékini ak Balla Gaye Yékini ak Balla Gaye daan na Yékini. Balla Gaye daan na Yékini. Balla Gaye daan na Yékini. jël bu nam ma làmb ma alaaji Cerno maa nam ma moo ko def ah mais Lamine fa la ma bàyyi daw rek song Balla Gaye na alaaji am na lu xew eh am na lu xew <laughs> asalaamaaleykum tey xam ni tey ngeen xam ni lépp dëgg la <laughs> mi ngi noonu xale baa ngi noonu borom géeje waaye ngi noonu borom spécial baa ngi noonu Balla ma bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal mais Lamine maaleykum salaam dama damay wax ñëpp di ko dégg Alaaji Cerno nee na tu es meilleur de ta génération Alaaji Cerno Ndiaye nee na li nga def sa benn génération def ko tey ñu spécial Balla Gaye numéro 2 lii lan la lay fàttali. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Balla. waaw <laughs> ah, maa ngi lay nuyu dëgg la. Mhm. maa ngi lay nuyu di la la jox sa wàccuwaay. di nuyu suma papa Thierno Ndiaye moom mi nga xamante ne ku baax la macha allah di kontaan ci sénégalais yi seetaan nga xam ne TFM. Balla dama bëggoon nga wàññi sa télé. nga déglu peut-être ak sa téléphone waaw nga nga nga déglu ak sa téléphone Alaaji Cerno système bii la jël léegi bi ya baax maanaam dinañ leen di caw di leen caw di leen caw waxuma télé yi waxuma rajo yi de kon koy non dem merci Alaaji Thierno xam nga kan laay wax ni moom la ñuy caw maanaam ñii seetaan voilà di leen leen cawi combat di leen ko caw ñuy kontaan di békk ñu leen di jox ndox mu sedd di naan Alaaji Thierno di neex ba la ñëwaat na sa yaay maam jaare nee na nga nga yërëm maa maa ko gën a bégee Faat Ñas nee na nga yërëm leen Medoune sey borom taw feex nee na boo pare nga dem jël si sa xar Balla Gaye numéro loolu jikkoom la ah. maa ngi lay ziare. maa ngi lay jox sa wàccuwaay. <laughs> mais Balla lii lan lay lay fàttali spécial Balla Gaye numéro de yaa koy dund boobu ak léegi lan la lay fàttali. <laughs> waa di kontaan rek xam nga sànq dama déglu wax ji ngeen commencé da nga ne commencement. Balla Gaye mm-hmm. ak léegi Balla Gaye mm-hmm. donc maanaam kon li nga waxee làmb bu fekkee spécial bi ñëpp ngay laal tey ñi ngi fi nga xamante ne ba nga tàmbalee mooy. suma trondo mhm. suma ménagère. Mhm. ah. dëgg la. suma ménagère Jacques Diène yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko amiin amiin julit te jaale mi nga xamante ne suma mag la suma lépp la gorom dafa génn àdduna. dëgg la maa ngi koy jaale Sénégal suñu papa Diop yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko waaw mais bu ñu ci cadre làmb mooy kon ni nga ko waxee rek mooy dafa nekk spécial bu Balla bu ne Balla Gaye di nga ne mhm. di nga ne ñu koy entraîner. Mhm. di nga ne ñu ko doon encadrer. Mhm. donc ba mu àgg fi mu àgg. ñooñu mënatuma leen fàtt ci àdduna te du ma leen fàtte rek du mu gor. wallaay dëgg mooy suma turandoo daj na ci man lu ne. ndeysaan. suma papa daj na ci man lu ne. dëgg la. Euh, Gaston kon ni nga ko waxee daj na ci man lu ne waaye Jacques Diène. relation spéciale. manager bu mel ba léegi ni may wax yow mosaguma gis manager bu mel noonu. ndeysaan. waaw ko yàlla yërëm. manager yëpp manager a baax kenn boonu ci. Hmm. waaye moom daf ma daan topp ne ba xam entraîné naa wala entraîné wu ma. lekk naa wala lekkuma. Zaguier musa lekk sama xaalis si premier combat ba ni may nekkee mbër bu mag. Ah, dëgg la. loolu suma turandoo mun na ko seede suma papa mën na ko seede. waaw ah, boo ci waxee loolu sax maître El Hadj Diouf ko ci parce que ci encadré la bokkoon. Mm-hmm. nga wax Aziz Aly Ndiaye moom daan fayal salle de musculation. Mm-hmm. mbay mi may envoyé message léegi kontaan lool. mi ngi may envoyé message léegi kontaan lool ne dañ koo delloo démb. Mm-hmm. kon donc nga xam ne ñooñu samay nit lañu. boo ne Pape Mama léegi sama nit la Omar Baas noonu. Hmm. Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon. Hmm. Hmm? Pape Mama Fall Taw Ndiaye. ah Pape Sané Thierno Gueye. sama carrière ay ñoom les deux. ñooñu mënu ma liggéey ay Baye Ndiaye xam nga ay Massata ay Babacar Ndiaye. ay Baye Baye <laughs> <laughs> géejewaay gi yëpp la gis nga sànq hélico yaa ngi ko gis. Lamine Golo Tafa Buuju. waaw Tafa Buuju. ñooñu <laughs> macha allah suma kere dañ cee jàpp lu ñu ndaw ndaw dañ cee jàpp nga gis hélico yi ni nga ko gisee ay ma ak jaww gis nga Daaru sekk moomu noonu. ndeysaan waaw dama bëri ko. xam nga loolu dañu dañu ma yàgg bëgg yéen ma jàmm. yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla fëgg bopp bi Daouda Seck dégg naa dem nga fa dégg naa dem nga fa barki démb waaw yàlla yëpp ko ak jàmm ak suñu papa Diaw. amiin marché sa donc la bu ma dee lim dinaa juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci spécial bala Gaye bii nga def. Mhm. di wàcc na nag waa géejawaay parce que man awma lu du géejawaay falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee fala ma nit ñi xamee awma seen fay mention spéciale waaye nag aussi rawatina supporteru Balla Gaye de ñëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna maa ngi leen di siyaar leen jox seen wàccuwaay. Hmm. Balla. ndaxte. Hmm. waaw. waaw eggalil demal. waaw parce que euh, ngay bëre ñuy sonn. di daj ci lu ne. yéena la jàmm waa Gambie fan ci club Balla Gaye international Mauritanie bu may lim damay jum te bëgguma jum bëgguma ko ma mere. donc vraiment maa ngi sant ñëpp ñi nga xamante ne dañ may yàgg jàppale ci comment. lancement bi ba àgg fi ma àgg ñëpp sant naa leen këram naa leen Elimane laa maa ngi koy bëggee bu baax donc vraiment loolu daal mun naa la ko wax en attendant ba li nga may laaja ma wax la ci. man dafa am dafa am dafa am loo xam ne appel bu may lancé la parce que boo gisee sa combat yi nga bëri yëpp dañu gis ay sponsor yu yu gunge promoteur yi. Mhm. nga gis orange mu gunge mu gunge presse presse Gaston ci événement am yëpp ñu ngi leen di tàllalaat loxo ñu dellu siwaat ci làmb ci ñu ngi tàllalaat loxo compagnie yi nga xam ne biir Sénégal lañu nekk ñu dellu waat ci làmb parce que promoteur yaa ngi def ay risques di investir xaalis di ko dugal ci làmb kon ñoom dañoo war a ñëw accompagner leen parce que loolu mooy li nga xamante ni moom mooy dundal làmb waaye laataal ñuy jëliwaat Balla Gaye Alaaji Cerno Pape Sarr bu pikin ñëpp xam nañ ko hmm. ñëpp xam nañ ko ci bëgg pikin ñëpp xam nañ ko ci goreem ñëpp xam nañ ko ni mën naa jaay bakkanam ndax Pikine Balla dellu siwaat na Balla booy xool combat yi nga bëri yëpp dafa am ay sponsor yu leen den gunge tey mu mel ni ah. sa combat ak Gris Bordeaux taxaw na waaye dafa mel ni sponsor yooyu nga xamante ne nii tey ñoo wër làmb ji ñi ngi doon commencé retiré wu te promoteur yaa ngi jël ay risque di tëgg ay combat alaaji Cerno ci foofu laa lay jox yow nga lancer message ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy sponsor yi ñu dellu soit ci làmb pourquoi pas xam nga dañ ne le retour de Gaston Mbengue euh, ci làmb ji pourquoi pas le retour de Orange ci biir làmb Alaaji euh, mën na nekk lamin ñi nga waxe ak ñoom réew mi ñun ñoo ko bokk te sport national mooy làmb bëre door amul ci benn dëkk amul ci mennum réew mu dul réew mi mmh. ku ko mën a def ku mën a doon da nga roy ci ñun bala bala dellu si na waaw waaw kay cadre sponsor parce que dañuy gis combat yi nga bëri yëpp même combat yi nga bëri biir stadium Iba Mar dafa fees dell ak ay sponsor tey sponsor tourne ranke ci cadre làmb noonu la parce que réseau bi dafay daw ak ñëw lii bu amul cat rek lii il faut mu am cat <laughs> waaye lii mënut a am mënut a mënut a ñàkk cat waay. Euh, Lamine ah, alaaji Cerno nañu waxante dëgg. Lamine. lii dafa neex ba xenee neex. maa wax lii man lamin xanaa maa ngi jégalu Lamine maa ngi jégalu ma nga fa waaw waa Balla waaw. waaw waa di nuyu Baboy bu baax ak alin Seck sama xarit. ndeysaan waaw euh, Malick kon li nga wax ak euh, Ousmane Diop mon ami mon frère. Mm. kon li nga wax lu am solo la man orange bu ma ko dee wax orange c'est les meilleurs mais man président de la république de laay wax muy Macky Sall mooy suñu président. moom lañu am askan bi ñoo ko fi teg. na xam ne askan bi dañoo bëgg làmb na xam ne askan bi dañoo sopp làmb mu wax orange ak ku munti doon ci société ci Sénégal mu sponsorisé làmb ndax làmb tey moom fii la ko fekk ci Sénégal donc yoon la aussi tamit mu proposer leen imposer leen ci ne leen ñu sponsorisé làmb parce que làmb suñu cosaan la askan bi ak lu muy tiitaroo ci àdduna ñun amuñu lenn lu ñuy tiitaroo lu dul làmb parce que mooy suñu cosaana ah, mooy suñu cosaan. ok loolu président da koy wax. ok Balla. Mm-hmm. Lamine bul ci sa carrière waaw Alaaji. xanaa xamoon ne Amadou Samba Kane bu Lonaas. waaw ni Lonaas def ne ñëpp def noonu. Mm, dugal seen loxo ci làmb. waaw ok Balla. di booy xool sa carrière. fi nga toll tey ba bi ngay bëre ak Gris Bordeaux. nuyu Alioune Sall. waaw le maire le maire de waaw di nuyu Malick Gakou suñu mag bu baax ak. Euh, Ahmed Aïdara waaw waaw. sama rakk jooju ak vraiment maa ngi koy bëggee bu baax Nene Tall waaw baax di leen nuyu di jox seen wàccuwaay. mais Balla. waaw. contre Gris Bordeaux. waaw waaw loolu moom euh, kon yàlla dogal na. ñu ngi ci te mënaguñ see sori mais yàlla dogal na aussi tamit euh, loolu lañ koy bàyyi ci loxo staff bi ak encadrement bi mais bu jotee rek incha allahu dinañ xam ne Balla Gaye de moom ay mbiram du sedd. ruq du am ruq bu sedd mais Balla. waaw. balaa may balaa ma lay tàggu. am ci mhm. lenn damay eggali spécial Balla Gaye bi. waaw xam ci ci Yékini fa la plafonné. fa nga jëlee roi mhm. des arènes. mais après dellusiwaat na. dellu siwaat nga mm. bëriwaat nga mm. bëriwaat nga ak Eumeu Sène bëriwaat nga mm. ak Modou Lo bëriwaat nga bëriwaat nga Bombardier ak Bombardier bëriwaat nga ak Tapha Tine je ak Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux merci léegi mais mm-hmm. li ma bëgg mooy nga jox ma sax xalaat rek par rapport ak jongante bu bees bi ak nuit de la lutte bi nga xamante ni moom lañu def ñu tuddee ko brûlé brûlé muy dimanche yëpp léegi làmb la nga jox mi sa xalaat ak plateau bu yees bi nga xamante ne nii moom moo am ci jongante xam ma nag jongante day manqué askan alaaji Cerno Njaay bu ma dagg boo may dagg ma lay dóor korosé xam nga ma sax yow la gay dafa wax ne ay mbiram du sedd day tàng waaw mais mbiri Gris Bordeaux du sedd day tàng ñaar ñu tàngal bu ñu dajee Lamine tàng jër. mais ñaari tàng buñ daje lu ya tàng jër. jër jër rek lay jur. Balla tontul tontul Alaaji Cerno Ndiaye nee na yow danga nga ne sa mbir day tàng. Eh, mbiri ngiri ngiri ngiri ngiri mbiri ngiri Bordeaux. day tàng xam ne it day tàng. kon kon jërëjëf. waaw xam xam nga xam nga moom. daa fekkee démb fekkee tey. waaw. lu mu waaw. kon jeex na tàkk. noo gisee noo gisee. léegi nag soirée lutte jongante léegi lamb day continuer rek dimanche lamb dong lamb kese lamb rek. dégg la maa ngi nuyuwaale Ndiaga Ndiaga Ndiaga Ndiaga Sabas waaw ndeysaan Ndiaga ay basam. waaw gis nga sama xarit la macha allah. Hmm. léegi daal li ma la mën a wax ci gàttal. man lamb daal benn plaisir laa ci bëgg amaat ci àdduna. man Balla Gaye mooy ñu jël ténor yëpp defal leen ko benn tournoi. loolu rek la plaisir boobu moom bu ma amee dina bokk ci li ma gën a neex ci suma live. ma banque sama baaka baaraam kan kan. ñan ñooy ténor limal ma wax la. déet yow yaay lim de bala. yow kay yaay lim yaay wax. yaay lim benn waaw. Eumeu Sène. ñaar. Modou Lo. ñett. Balla Gaye. ñi juróom. <laughs> Tapha juróom benn. ak kan. il faut moom xale Gris Bordeaux wallaay loolu rek laa bëggoon tournoi yooyu rek laa bëgg. ak kan. tournoi yooyu rek laa bëgg jeex na ñooy ténor yi yaakaar naa laa la wax ténor yi. ah ok ok. ah booy li ma lay wax nii. waaw. ñooñu boo leen beneen kalaaf. waaw. defee ko waaw waaw. ñoom catégorie ñoom booy ñaar yooyu. loolu dafay neex loolu dafay neex loolu dafay neex trop ci làmb. mais Balla mais Balla loolu njar ndéem la de. Ah, mais loolu bu sottee. waaw bu sottee. bu sottee. ñoom ñoom yi ñuy wax ténor ñoom hmm. ñu pare. waaw ñii euh, génération montante bi ñëw. Ah. bu boobaa ñi génn fii ak ñi génn fii daje ñi ñàkk fee ak ñi ñàkk fii daje. loolu mooy wax. mais Balla ah. loolu am na ah. am na am na structure bu ko fi tenté woon mais réussir réussiru ko woon waaw mais xam nga jàmm ak pexem yàlla ak dogalam mais loolu bu ci ñëpp hmm. jàppoon état jàpp ci tey orange ñëw kon ni ko waxee loolu day am waa Balla yow ñeme nga xatiir de non du xatiir xam nga dañ ne tey Messi hmm. moo dàq fubal waaw moom waaye Chris moo ko gën a jantal waaw loolu la ñu différence bi li may wax. yow kii nee ñii ñii ñii nañu. ñii ñoo mën ñii nee nañ ñee ñoo mën. waa mais bu ñu lépp tey day gën a neex. boole yow yaay yow yaay Cristiano Ronaldo wala yaay Messi. non man dama boole ñaar. waaw. boo ne Balla Gaye da nga ciy teg numéro 2. waaw. nga ne Chris ni Messi. waaw boo nee jantal da naan Balla Gaye. waaw boo nee mën bëri bi da nga naan Messi. mais Balla. woo man est-ce que man du gars yi maay seen Cristiano Ronaldo <laughs> bul taw question bi de ak jongante bi. yow après yow sa mbokk journaliste nañ la laaj nga wax leen ko dégg nga. <laughs> mais Balla maa ngi sant di la gërëm. mais maa ngi sant bu baax di kontaan bu baax ci émission bi macha allah. ndeysaan mais di nuyu Maawo spécial ah. suma xarit la di nuyu borom télé bi mu Youssou Ndour. Mm. suma jigéen. suma père suma lépp. di nuyu waa TFM yëpp di nuyu Sénégalais yëpp di jéggal waat ci Sénégalais yëpp bu fekkee war nañ ci aussi. non li ah, non li nga fi wax lépp amoon. Hmm? li nga fi wax lépp naaj di ñaan virus bi mu dem ak jàmm. amiin amiin amiin combat combat yi fi taxaw vraiment neex na Thialis tëgg na combat bu neex. waaw bien sûr vraiment ñu ngi koy félicité di nuyu aussi tam suma papa Gasson di ko félicité suma père Aziz Alain Ndiaye maa ngi koy béggee suma lépp Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon. maa ngi leen di béggee di leen ñaanal jàmm ak salaam Pape Mama Fall Andaw Ndiaye. Hmm? Hmm. xanaa Balla day reer. jërëjëf ah, <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw ñu dem benn combat ñëwaat waaye lii neex na waay. nga dëgg Alaaji ñoom ñaar ñi ngi lay diggante Tapha ak Balla Gaye ku ne ngi tàllal sa loxo sa morom ñu ngi leyaatoo ñoom ñaar Balla Gaye dox na ci koom taxaw xool ko ñu ngi leyaatoo ñoom ñaar Balla Gaye même ne ay demul dox na ci koom Tapha replié ndeysaan Balla Tapha Tine Balla Tapha Tine Balla Tapha Tine ñu ngi mais dara amagul Balla même ne ko Tapha replié ne ko Tapha replié na ko na ko combat bi mënul gaawee noonu ala. yi ñu ngi lewtoo. Balla Gaye Tapha Tine. dalagul cong Balla mépp na day accéléré Tapha delluwaat na ginnaaw. Tapha dellusiwaat na jege si ko. ndeysaan Balla Tapha. saawu baa la doxee ci koom Tapha replié wax na dëgg parce que xeex bi la gën a bëgg bala arrière na ndeysaan Tapha ne na ko woon bu laajee bëree bu laajee arrière ba sa diggu bopp dinaa ko def alaaji maag ne na ko bu laajee 45 minutes dinañ ca dem waaye Balla Gaye ne ko xanaa da ngaa nar a daw combat bi Balla mépp na Tapha dellu ginnaaw ñu ngi lewtoo Balla gi ko jege Tapha gi def recul stratégique mi ngi faxas loxoom kenn dooragul kenn songagul Balla ngi dirigé Tapha ngi reculé Balla door na dooraat Tapha jël. Bombardier ngi kàbbar ci kawam. Bombardier ngay kàbbar ngay ñaan. waykat yaa ngay way tëggkat yaa ngay tëgg. dimanche 8 juin 19h30 minutes stade Demba Diop Balla Gaye 2 Bombardier. ña nga jàkkaarloo ñoom ñaar Boubacar. ñoom ñaari attaquant lañu bu leen fàttali leen ñaari attaquant lañu kenn dellu ginnaaw lañu wax. tey dellu ginnaaw amatul. ñaari attaquant round d'observation. ña nga lewatoo. ña nga lewaatoo. Balla Gaye da nga koy xool ci bët. Mhm. Bombardier loolu dafa indi dafa mel ni ku bëgg a xaar Balla Gaye ni mu ko doon Balla Gaye moo ko ne woon du def deux moo tax Bombardier ngi taxaw di ko xaar bëgg na mu def deux minutes te ñaari attaquant la ñu dellu ginnaaw amul kenn laalagul sa morom ña ngay laale wallaay na ngay laale seen loxo yaa ngay yaaba attention arbitre bi léegi mu wax ak ñoom ah oui avertissement verbal moo nekk nii sama gars yi. d'accord parce que dafa am lu règlement wax fii bi seen ñaari baaraam laa leen téye. seen di léewtoo c'est tolérable mais distance bi ñu nekk nii kenn lawul sa morom. refus de combat est très concentré ce soir. il faut léewtoo bi loxoy laalante au moins arbitre bi mën a comprendre. loolu la règlement bi wax. exactement. El Hadji Malick Gakou dimanche 8 juin stade Demba Diop en direct sur la télévision Futurs Médias Pape Cheikh Diallo Moustapha Gueye DJ Books pour vous servir Bombardier mi ngi a ni kii bu ko dox ci Balla Gaye ni mu ko def Balla Gaye taxaw farme kanam bi Bombardier taxaw ñu xoolal Boubacar Boubacar waaw Cerno mbaa xam nga ni ñoom ñaar ñoo bokk li leen digal hmm. ku ci nekk na nga dal na nga teey attention daje nañu daje nañu. dara dara xewagul. dara amagul je pense. lii la. loolu la kooku. Ah lii lan la. c'est une chute. loolu la kooku. Ah. Balla na Balla même na. day door a ma jiyoo ak moom xeex nañu. ma door na ko Balla tërëf. songoon nañu ñoom ñaar ama song na bala mboot na ko ama bañ na àndoon ña nga ca suuf ama seen takk na ko ama seen wër na ko ndombo ama seen door na bala gay bañ na ama seen ay door noonu ama seen koy door noonu seen koy door noonu ama seen wër na ko ndombo bala gay bañ na ama seen wër na ko ndombo danoon combat ba jeex na atte noon ñaari mbëri ama seen am la ndam voilà lii mooy carrière Balla gay numéro 2 gum ci làmb père Bas bu Balla Gaye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare bu wér léegi nag revanche walla confirmation digganteem ak Gris Bordeaux loolu moom moo des Pape Sarr kii dama bëgg ngeen xool ko ñëpp ñoo ko xam. Sénégal waaw. deuxième combat revanche am ak euh, Modou Lo ñëwagul ah. dina ñëw. te na nga bàyyi sa xel ni Yacine Doucouré mooy yaayam. dëgg la Khadim Diagne ay dëgg la. mais bàyyil sa xel ni Pape Alé Guèye baayam la. dëgg la. waccat sa xalit ni Cheikh yu fay baayam la te daf ko bëggal boppam. dëgg la. Amadou Diagne Sabas ne. dëgg la. kontaan na ci yow. trop sos waaw maa ngi koy nuyu bu wér a di ko ziar. dafa am benn geste boo xam ne Pape Sarr daf ko def daf ma neex trop. lu baax rek lay def xam nga mooy lan. mooy dafa jël risque dugg ci ëtt promoteur bi taxawal ay combat Pape Sarr waaw am structure bu bees mais pas taxawal ay combat yu neex Pape Sarr ma bàyyi la nga nuyoo. ak mbokk yi ah, seetaan télévision Futurs Médias rawatina jongante. waaw ah, asalaamaaleykum. yëkkatil micro bi Pape. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu Sénégal di nuyu Pikine bu ma jógee di nuyu suma papa ji. ki su ma gisee ci plateau bi damay kontaan. di la nuyu tamit di la remercier. merci sama kër la. dëgg la tey damay damay nekk en l'aise parce que tey Youssou Ndour la. ak suma maam lobaat wax na dëgg mu dem ba maag biraan yoo xam nga ci dara dëgg la ma teg ko fu ma tegul fenn kenn dëgg la di ko ñaanal hmm. di nuyu jamaïcain ndeysaan tey su ma duggee su ma amee fit jamaïcain bi ci promoteur yi jamaïcain la seen structure bi nu mu tudd rente dakaar bàyyi micro bi ci suuf rente Dakar la tudd rente Dakar lu tax nga tuddee ko rent Dakar rente Dakar benn compagnie la bu nekk France ku ñuy wax Alain Ngom ak Jimbo ñoom ñun ñoo nekkandoo woon cité Hacienda jour bi ma defee déclaration ni dootuma topp mbër ñoom ci lañ ma woo ne ma luy sa projet ma ne leen làmb laa bëgg si lañ ma daggalee licence ñu ñëw financé ma pour ma ñëw liggéey si. yan combat nga taxawal Rente Dakar. Rente Dakar comme li leen arrivé ci rëg-rëg. moo ñu arrivé ci Nékoréel. Hmm, lu tax. dañ koo ñemewul. <laughs> ah mbër yi ñemewuñu. ñemewuñu ne ko rel. lu tax da nga ko wutal ak kalmu nduur ak kool bu sab ok am na léegi six mois. Hmm. mais am na mbër bu ko nangu mbëru géejawaay bu ko nangu. muy kan. ñu ne ma naa ko sa ñu ma ñu ma nekkal ñu ne ma naa ko nëbb mais mardi laay def. ko nëbb bu ko nëbb bu ko nëbb bëgg naa ko def fii kii. bul nëbb mbër mi bu ko nëbb. wala ñi nga àndal leen ko dagal bu ma ko wax. jamaïcain bii moo ne bu ko wax. Pape Pape ñëpp dañ ko ragal. Mhm. nga fexe ba am ku la ni jox ma ko ma. feeñal ma ma ta yi ma yi ma taxawal ni mooy instant yi mooy Pokola. jarbaatu Ama Balde. ak Papa Kane numéro rakku Reug Reug. Euh, taxawal naa tamit si combat yu ndaw yi Bou Siteu ak Malick Ndiaye 37 fu. ok taxawal naa Boy Moron ak euh, conteneur. Hmm. kóol bu zab avance mu ngi fi jox naa ko avance mu téye ak grand mbañik. Hmm. kalmu nduur. Hmm. avance am mu ngi fi ne ko rel jox naa ko avance ba pare xam nga adversaire am lay xaar wax dëgg yàlla wër nañu fu ne dem naa ba ci les de jubóowuñu nag. xam nga euh, bu euh, nu mu tudd sax géejawaay laa njëkkee parce que man mbëru géejawaay laa bëggoon mu bëreel ma grand combat. Hmm. mais li leen arrivé si nekko réel si si. <laughs> rëg rëg loolu moo ma arrivé. si nekko réel si nekko réel parce que dañooy jaar ci suuf ah di jaar ci suuf naan boo jëlee avance kii mbër bi dalay mere yooyu noonu te mbër boo toog ñetti at bërewoo nga yëkkat presque 3 millions di ko fay. man def naa ko muy si weeru koor bi ñetti at bëriwul ba pare daanu. ah yow yow kooku suqali. léegi sa ah. combat yi yow lan mooy sa objectif ci làmb da nga ñëw pour tëgg benn journée pour dem wala da nga ñëw pour des. damaa bëgg damay damay tëgg ñaari journée ñaari journée lépp mu ngi dépendre rek si jamaïcain. Mhm. moo lay coaché. jamaïcain ci moom laay ci moom lay xool. lu tax nga xool ci jamaïcain. parce que li mu. day xale boo xamante ne dama ko gis mu tëgg événement Gambie dégg nga li mu def ak Gambie mu ma promoteur bu ko def kon drapeau As Diagne yaa koy tëgg As Diagne bu a yaa bu Cheikh Talibé bu Cheikh na Cheikh maa koy tëgg yaa koy tëgg maa koy tëgg As Diagne bëgg naa drapeau transitaire yaay tëgg yaay tëgg bi sam Birane moom sëy na mu préparé sa Birane xam naa drapeau moom na ko xaar waaw léegi moom nee na mi ngi nuyu tàkko waaw balaa waaw waaw rapidement dañ non dafal fii xaadim jaw moo fi jaar waaw séeri bu jaw moo jaar fii waaw ah. ak sama taximaan bi muy jaas bu tali bu mag ah. ñoom Birahim Seydou Mbaye ah. ak As Ndaayaan ñooñu laa nekkandool foofu muy di nuyu sama yaay ak fi may yeewoo tey muy waa kër Lobaat Fall mm-hmm. maa ngi ñaanal suma maam Lobaat xam nga ak ñi nekk kër ga muy Cheikh Fall goo ami ak goo tuuti. muslim suma mag la mu ngi ba Nouadhibou. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw léegi li ci des nee na tàkko borom jaabi yaa ngi Paris ak tàkko borom 18e ak Mode 6 NMA. ak Cheikh Lobat Fall. ak Keba Kanté Birane Ndour DG télévision Futur Média. déggoo Dongu Mboub. Dongo Mbuub kooku sama goro la. Dongo Mbuub bu Hollande. doomu doomu Ablaye Mbuub la. Mm-hmm. Ah, Mansour Diop Italie. Mm-hmm. ak Pape Diaby Paris 18e. Mm-hmm. ak Mousli Sarr. Ah, Nouadhibou. yéen ñëpp Pape Sarr mi ngi leen di wax ni. nee na sarax ci ëtt ëtt promoteur yi maa lay gunge. ñëwal yëkkati non nuyu naa ñëpp di remercier jamaïcain bu baax a baax. na ko na ko na ko Gambien jàppale. parce que tey sénégalais itam jàppale ko sénégalais yi jàppale ko. Hmm. xam nga Sénégal bi dem waaw maa ngi nuyu Jimbo tey. ok ñoom tey ñoo indi li yëpp. ok léegi léegi léegi nag mbokk yi. Hmm. man personnellement damay dellu siwaat gërëmaat suma tailleur. Hmm. ak maam Diarra Fashion. ah 77 510 08 09 77 510 08 09 waaye di nuyu nag Aliou. Aliou Ngom euh, mon honorable tailleur bi nga xamante ne nii kenn demul mu des léegi dama bëgg ngeen mayal ma Pape Sarr benn mbir rek. ma dugal les cinq minutes de wulli wulli dem na kii mais dafa non wulli est-ce que. du ko dàqate la ñëwal nga ah nga ni kan moo ñëw ni maam jaara fashion. maam jaara daal ci yow rek la ko kal. waaye lu tax du ko kal ci man xam lu tax ma koy kal ci man alaaji Cerno yow yaag Sidi Jaxate yéen a yem Sidi maa ngi lay nuyu kottu rek. du ngeen tayiru saar du ngeen paas mukk man tayiru saar tax daal muy ma tayiru saar daal yow mi ko ñam nittalil ko sa bopp moo tax du ma pa Lamine non pas Thier du paas euh, nu mu tudd. mais euh, Sidi Diakhaté. du paas maître El Hadj Diouf. yaa ngi dégg. nu may mais comme moom moom mos Taïru Sarr moom ak euh, nu mu tudd Baye ma ñoon ndittil leen ko seen bopp <laughs> may ma dara ma jël les. ak ñi mu àndal li ñu tàggoo ak soxnaam Abib ñaa borom Thiès ànd suqali seen. Léopold Sédar Senghor ñoom ñaar ñi ngi léewtu Balla Gaye mi ngi jiital tànku càmm. Gris Bordeaux mi ngi jiital tànku ndijoor saan ñoom ñaar Balla mépp na Balla doon na door Gris jël ko garanti Gris Bordeaux ci Balla Gaye la gën a feeñ Gris Balla arbitre bi àtte na leen Gris Balla am na lu Balla di wax Balla sëgg na Balla sëgg na arbitre bi nee na ko ñëwal ci diggu géew ci ndodd Balla Gaye avertir nañ ko bi sifflé na Balla Gaye Gris Bordeaux ndeysaan ndaw lamb ju amateur yi bëgg cey Luc Nicolas ak Luc Nicolas la xeex Balla doon la ko jël Gris mais mi ngi dóor tàggoo noonu giri dóor giri dóor na giri ngi xeex giri balla topp na ko balla taxaw na defar na téere bi balla ga ngi ñëw giri ngi arrière balla nga koy topp balla bëgg na ko génne saako yi moo tax mu féete noonu giri génn na giri génn na jiital na combat bi ñoom ñaar ku nekk ci jiital na sa tànk càmmañ Bruno Modou Lo ak Balla Gaye ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Bruno booy xool ci taxawaay Balla Gaye 2 numéro Balla Gaye numéro 2 moo ko sut waaye Modou xarañ Lo mi ngi ne tekk di déglu Balla Balla ngi ne tekk ñoom ñaar waaye ñoom ñaar ñi ngi ne tekk Balla Gaye ak Balla Gaye dugg na ci garde bi dóor na Modou Lo arrière na Modou Lo dóor na Balla ñoom ñaar attention dóor mu daanu attention Modou Lo Balla Gaye numéro 2 attention ñoom ñaar jàppante nañu Modou Lo Balla Gaye numéro 2 ñoom ñaar ñi ngi xeex attention ñoom ñaar ba Balla Gaye ngi dóor Balla ay perkit moom ak Modou Lo attention ñoom ñaar Balla Gaye numéro 2 ak Modou moom ak Balla attention nu ñuy def Balla ngi dóor Modou fayu na ñoom ñaar ñi ngi xeex attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye a dóor attention Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye a dóor ba tey Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 attention ñoom ñaar attention Modou Lo ak Balla da ko bëgg a Balla Gaye 2 Modou Lo ñoom ñaar Balla Gaye 2 Modou Lo Balla Gaye 2 Modou Lo attention ñoom ñaar ci suuf Balla Gaye 2 Modou Lo la ilaha illallah Balla Gaye 2 daan na Modou Lo voilà Pikine laa jëm nuyuwaat bu baax a baax Rama Maki ah la très sociale ak euh, Doro Gueye Clara mi nga xamante ni jàpp na ci bu baax léegi nag les cinq minutes de Wouly commencé go dàq naa la. ah non dama lay wax non non non Alaaji Cerno parce que man sama liggéey bi man sama suture la man nit duma ko yàqal. Alaaji Cerno am nga samedi am nga dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche. ba tey ana sa élément. wulli lu mu def. asalaamaaleykum père li ma def <laughs> dama man ngay waxal de. maa ngi lay nuyu da ngay jàkkaarloo population bi nga wax ak ñoom. waaw maa ngi parce que dimanche fii la fi taxaw wax ju rëy da danaa jëli Tyson Mor xarama sax dafa am lu ko bett ma ma naa jëli waaw. mais a bàyyi ko mu wax. ba xam lu mu fi indi xam lu mu fi indi piis. piis waaw dégg waaw ak akus piis la fi indi naa jëli Tyson naa jëli kii. Lamine bàyyi ko mu non non non mu ñëw ak la ko nekk non fii kaay fii man maay diriger. te dama lay expliquer benn affaire. amuloo élément. Euh. ne vient plus. dàq naa la demal ca télé ba nga nekkoon. demal ah. <laughs> lanoo. non am naa élément am naa élément bu neex. am naa euh. gën ma nga gànnaar. non élément bi dafa guddee Mao Cissé. mun a dimanche lañ koy monté parce que élément bi neex gi mu neex tey monté wuñu ko. mais caméraman bi fan yi euh, bisaan dama ko war a yow Lamine du woyu man booy bi jaaxal na ma bisaan la de. woo naa ko euh, lundi woo ko mardi mu ne ma mercredi. mbisaan bi bëgg a taqal ah? sa mbisaan dafa jàpp booy bi il faut nga jox ma beneen caméra eh. jox ma booy bu booy bii dafa gën. xam nga yow yaa ngi yàq deru mbisaan te yow mbisaan lim la defaral kenn defaral waaw mbisaan moom vraiment tey daa amoon dëj <laughs> mbisaan daa amoon dëj daa amoon dëj de ñu koy jaale mais am naa élément na aussi loo ñu indil tey waaw loo tey loo ñu indil tey tey demoon naa seeti Xaadim Njaay xam nga Xaadim ñu ànd ñu dem seeti les cinq minutes de wuli Xaadim Njaay non les cinq minutes de wuli Xaadim Njaay te ñoo yéex a dem mais mais aussi aussi euh, Lamine. non demal naag demal naag yow avant nga doon liggéey fii. avant ma lay jël fii les cinq minutes de wuli da amoon foo nekkoon dellu fa. fa ma nekkoon kenn seetaanu leen ma fay dellu yéen dañuy am fii ñuy seetaan laay toog télé Youssou Ndour waa kan mooy jógee ci télé bii di dem ci beneen télé. te ngay booy Medina ah? booy Medina nga boole si. man booy Medina la fii laay mel. waaye yow léegi ANSM nee defal ndax ma nekkoon ci maaw maaw vaar ma ko yow dimanche bi passé dinaa jëli Tyson mais yow ana élément bi. aussi Tyson la maa maaw dëgg élément bi ma maaw yi tam maaw xanaa yow tam doo euh, PAF yi monteur vraiment eh, attention affaire bi ñu ñëw na depuis cinq heures maaw vraiment xaado PAF. maaw nag. non man dama rus fii laa xam ne kayaasi nga boo ko tegoon léegi léegi léegi léegi ma xam ne kayaasi wala maaw léegi. lan na maaw Cissé moom léegi promoteur la wala. moom léegi promoteur bee tax. promoteur bee tax. bu ba muy nekk. Eh, man dama rus. mais nag Tyson maa ngi gërëm. dégg nga dégg nga dégg nga. Tyson woon na ma. yee. Tyson laa bëgg a dellu. vraiment aussi. laa dama koy euh, gërëm parce que. dafa ma woo man maa ko woo mu ne seetaan naa la maa ngi lay maa ngi koy rafetlu gërëm na la yow mu ne Lamine Samba li mu la jox ñun ñëpp la ko jox mu ne ma en tant que man dinaa la nangu loo xam ne duma ko nangul ñu bëri. xaadim Seck sama rakki bopp maa ngi lay nuyu ak sa madame boobu jógee itali xaadim ziyaara naa la xaadim Seck mu Pape Seck kontaan ci yow. mais Idr nuyul ma waa cité Aliou Sow yëpp. mais Lamine que tamit parce waaw di gërëm aussi tafaatin aussi tey d'accord nañ ñëpp daal mbëri yëpp Gris Bordeaux maa ngi may ma may ma may nga ma mbisaan euh, euh, Mor ma man dama ruus xam nga lu tax non sérieusement du caaxaan man dama ruus parce que xale bi dama ko teg fu ma tegul kenn xale bi ma mayaat ko chance ma mayaat la chance. waaw Lamine. Apulaay may moo ne naa la mayaat chance. waaw madame Ciss bi Ciss maa ngi lay nuyu. Euh, euh, ma euh, ma ma waaw. dama jaxasoo quoi xam nga lu tax ma jaxasoo. parce que dama doon dama ne. Apulaay ne ku ne ngi woote nga nga ma dàq. télé bi ñëpp di ko seetaan fii mooy télé yàlla sax na seetaan nga bëgg ma dàq. télé bi mooy. Lamine Lamine. fële ca Sane ay Lamine Lamine. dégg nga mbokk yi téléspectateurs yi. mbokk yi seetaan guddik làmb mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan jongante Alaaji Cerno Ndiaye ak Lamine Samba. waaw. mayaat naa wuli deuxième as tey. waa lii neexul ndax may ma. waaw ndax. waaw Apulaay ak sama papa ji nga xamante ne nii kii ak Mor Xarma mi may wax sànq ba léegi baal ko. léegi dimanche. boo indiwul élément dàq naa la. voilà may ma wëli élément kay ñu fi. Eh, xanaa man di waat may ma may ma élément ngi may ma wëli man moom am naa élément. dafa la Lamine Lamine. waaw. wuli sa wuli la. waaw. Idrissa Bakayoko. waaw. Nouakchott ak Aliou Diop. waaw ñoom ñëpp ñoo ngi wax ni. wulli wulli Lamine la. waaw nee na Lamine na ko dimbali li laawale rasuli bàyyi ko. waaw léegi lenn de mun naa ko dimbalee. léegi lenn de mun naa ko dimbalee. nga ni may nga ko lan. ma ne lenn mayaat naa ko deuxième sens. di ngeen gis fi lu gën a ko exploité. télé bii waaw jogante retour bi waaw ñi ma nar a seeti. waaw. ba pare damay dem ci ñëpp ak mbir yu mag yi yu ndaw yi nga xam ne neex na. Eh, man am na ay mbër de ousin. Moussa Niass ñooñu xaw gànnaar lañ jógee ñëw yow say mbër man mbëru siiw laay laal. <laughs> waaw léegi wuy ma léegi dama bëgg nga taxaw fii nga wax sénégalais yi ñu vaar la appalaay enregistré ma ko dimanche ndax di nga indi élément. dimanche dinaa non am naa élément tey na leer la mais am naa élément daa guddee. mais dimanche waaye léegi waxal dimanche rek andi élément aussi di gërëm. Mm, mm, bu ko fi xaj bi concerne bu ko fi indi eh sa bi xoosu na. mi mi mi misaal vraiment. misaal maa koy gërëm. maa aussi mu ngi ciy jàpp mais di wax ñett dimanche naa andi ñaari élément fa fa kii ah, jabaru Karambo non ba pare non dimbali ma ki ma xam nga Lamine. fii de non après di ko non di ko wax. jabaru Karambooj ji doo ko gërëm. nu mu tuddati soxna Karambooj. de non non dama lay dàq de nu mu tudd. jabaru Karambooj. nu mu tudd. CD bi. CD bi. Fatou mbay maa koy gërëm di gërëm kalaam non dama am sama benn doom boo xam ne dama ko invité woon mais temps bi dafa xat trop da ñëw taxaw nii dimanche insha allah ñu leeral ko kaay taxaw rek mais ki ma sañ seel non may ma tuuti rek xaaral may ma tuuti rek sama doom la man maa ko woon te gars yi ñu may bousculer yëgal na ñëpp ni mu ngi doon ñëw comme télé bi moom ñëpp moom la ñuy seetaan a dimanche insha allah waaw na ko ñëpp xaar insha moom man ma tardé et c'est mon fils à dimanche insha allah parce que ni mu garaaw waaw ok yow yaay kan yow yaay kan. Eh, oh, nga ne lan nga ne lan eh. bébé garga nga ne lan eh. waxal fii ba dégg. may sens. yow amoo sens. am sens ndax Lamine Samba. ñàkk sens a tàng tag lii. am sens Lamine Samba sama baay. moo tax ma am boobu nga ñàkk sens bi Lamine sama dee sa baay. Ah. boobu nga ñàkk sens. mais war may sens. moo may sens mais benn sens lañ may te may na ma ko. waaw maa la ko gën a xam. maa la ko gën a xam demal. amoo sens. yaa ñaaw. <laughs> waaw léegi léegi tàggool di gërëm vraiment waxal dimanche li ngay indi rapidement <laughs> kii ma sañse la mi dama sañse wax nga wax ko pàcc wax na ma ko lees moo ma sañse boo benn boobu nekk Kër Massar vraiment di ma sañse parce que télé bi maa maa ngi gërëm lees boo moytuwul lees kaana Kër Massar moo ma sañse lii taw ba suuf lees lees laa yeb lees sama baax laa yeb de moo daqa jaay Kër Massar yére yëpp wuli na ñëpp di gërëm sama li la mi soxna Sali Dione Mbaye joob Gaston Mbengue sama doom ndey Marème Amina di gërëm waa Réfane ñëpp di gërëm sëñ Mamour Diagne. waaw doon nuyu waa Gétti ga. Fat Binta doon nuyu waa Gétti ñoom Mass Boga gaaw rapidement. Mass Boga. Mass Boga la ñuy jox mu mu mu siyaare waa Gétti ga yëpp. man dama jaay xar. waaw. di wax ak Paa Thiam ndeysaan papa yi maam Basine Thiam suma papa jooju maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la bëggee. di gërëm aussi Lamine Ibrahima Ndiaye gaawal lancé leen jingle oto di gërëm Mbodj. yow commencé goo di gërëm. di gërëm Youssou Ndour di gërëm Birane ak. Bouba Ndour neex na ma parce que dafa ak booy bi garaaw bi ci fii keroog. Ndiaga Ndiaga. Ndiaga Ndour ñu baax lañu mais. CD bi. bi Birane fa ma xam ko. di gërëm aussi Assis Ndiaye. ok mbokk yi kon mi ngi noonu Alaaji Cerno Ndiaye waaw Alaaji Cerno Ndiaye tarfatan Lamine papa kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan ngir yàlla may tuuti lamin ma tuuti may ma tuuti xanaa wax rek nii. waaw Ibrahima Thiam. lance ne jingle bi de. Ibrahima Thiam Teranga waaw. nuyu ko daal Lamine war nañu bu baax a baax. nuyu ko war nañu war na ñëpp waa kër Baye Mbaye mbokk xéewal na ko yàlla tur si askanu sunu gaal. maay borom lépp ak fépp ak ñëpp di suñu borom yàlla defal ñëpp jàmm jongante jeex na spécial làmb birale